وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون mbooloo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nuyoo bu teey bu jullit ak moroomam bu taalibe ak moroomam di leen sant ci daje bi ak yéene ji ngeen am daje fi waxtaane lislaam ngir jëmm yàlla azza wa jalla ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu di ñaan suñu defal nu sunu jataay bii mu di yu mucc di jataayu yiw di jataayu jàmm di jataayu texe adduna ak alaxira ñaan suñu borom def képp ku jóg ba ñëw fi tànk yi nga jógi ba agsi fi ak yi ngay delloo suñu borom def ko ay daraja ca àjjana yawmal qiyaam mu di jataay yu am solo yoo xam ne jullit bi war nañ koy faral a daje li ko taalibe yi ñu tam ndax njëriñ li ci mën a jóge ak fii nu toll ci jamono bi ni njëriñ jafee ndax muy yonent bi sallallahu taala alayhi wa muy Cheikh Ahmadou Bamba ku ci nekk ñee nga jullit ñi ba tàyyi ci jamono ji mu jëm mu jamono joo xam ne fii nu toll ak si na nañ ci ba noppi bu ci biir waxtaan wi daan gis ne mandarga yi ñu joxe woon ci mujj jamono egg nañ ci yàqu gi matale adduna sëpp matale adduna sëpp senegal demee ci biir adduna ci yàqu bi ne ab dun boo xam ne dafa nekk ci digg géej géej yëpp di ay yàqu-yàqu dun bi képp di fa suuf Sénégal demee noonu te li ko waral xam ngeen ko daan waxtaan ba àggte ngir ngëneelal yàlla ak baax bu mu baax sedd ci Sénégal tax ñu am loolu mu seetloo nag ne doomu aadama dundam dafa gàtt te lu muy jëriñoo ëllëg fii la koy liggéeyee te gàtt gi dundam gàtt lu mu lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt lim ci jublu ci aajoy boppam yoo xam ne addunaa ko laaj gën a bari gannaaw loolu yi koy xëccoo yi xëccoo xolam di xëccoo ay bëtam di xëccoo itteem fees del kaw suuf mu war a bëri yooyu yëpp ba def aw sasam liggéey loo xam ne ëllëg balaa yow may xiyaam ci biir bàmmeel bi mu nekk nga xam ne ci lañ koy fayee lam liggéeyoon lépp ba balay saa taxaw jëfam bañ a jeex ba saa di taxaw bu seet yàggaayu traayu bàmmeel muy lu tiis loo xam ne dara du fekk doomu aadama dul la mu dawaloon rek doomu aadama di koo xam ne yi muy bëreel ci suuf kaw suuf bari bari koo xam ne li mu koy yóbbu mooy li ñu tuddee mawtul qalbi mooy deewu xol xam ne mooy waral ak texee di bu sax xol dafay dee te bu dee ñu alquran tudde nag kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu jëf ji mu jëf wax ji mu wax xalaat bu mu xalaat lu mu xool am na lool tâche bi muy def ci xolam bu bariwul lu tudd yàlla bariwul liggéey bu baax bariwul jëf di koy nàmm di ko raxas day mujj ñu kukk boobu bu ca saxee te dara dindiwu ko day mujj ci xol bu dee bu xol dee nag borom dootu déggu waar dootu dellu ci boromam lu baax dootu ko saf day topp bànnee xam rek du geesu gannaaw mukk ba keroog dee di ñëw jamono bi xër not leen xër ci bëgg àdduna ak yi mu làmboo not xol yi xëccoo am am nuur ci po nuur ci jéllale fàtte yàlla fàtte ëllëg fàtte génnuk roowu fàtte traayu bàmmeel fàtte jéggi siraat fàtte bis penc ba doomu aadama yépp di daje di taxaw ci kanam yàlla ku nekk mu di la fay sa jëf yàqu gi di gën a bari di gën a mat rek doomu aadama di gën a nuur rek muy li seytaane waxoon bis ba ko suñ boroom alagee génne ko diwaanu malaayika yi def ko moom iblis muy kilifa ak seytaane yépp la aqudann lahum siraataka almustaqima suma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajid aksarahum shakirina seytaane wax suñ boroom ci bis boobu ne ko sa yoonu jub wi nga xam ne ku ci jaar mucc te ku ci jaarul doo mucc danaa ci galandu danaa ko ñaq ba kenn bi ci jaar mbindeef yi danaa leen jógee ci kanam jóge leen ci seen gannaaw jóge leen ci seen ndeyjoor ak seen càmmoñ jóge leen kaw jóge leen suuf danaa ànd ak seen deret di daw du leen xiir ci lu leen di lor te du ñu la fàttalikoo ci mukk du ñu sant sa xéewal bi mukk du ñu fàttalikoo ëllëg mukk suñu borom ne ko ah inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun waaye nag sama jaam ñi ma tànn dëgg ñuy samay jaam doo mën ci ñoom dara seytaane nag mer ngem bu gis booba ba léegi du nelaw du wàcc du yendal du noppalu fas yéene yoon wu mu jaar ñëpp jaar ci fa mu jëm ñëpp ànd ci moom ba du wéet loolu rek di liggéeyam te du tàyyi mukk bu loolu amee jamono yàqoo nii li ñuy tuddee al murid al murid mooy kan daan ko waxtaanee ci biir waxtaan bi kon moom dafa war fu mu toll di delloo ci xelam tey bañ a wuuteeg tey tey fexe ba wuuteeg waa jamono ji bañ roy ci ñoom bañ a jaar seeni tànk buñ ko xucc mukk jëme ko ci lu mu xamul ndax la mu koy indil ëllëg ndax ki ñu tuddee al murid dara war koo itteel lu dul ngërëmal boromam Cheikh Ahmadou Bamba nee na idil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada nee ki nga xam ne moo jëm ci yàlla mooy al murid mooy ki jox boppam yàlla ki jaay bakkanam ak alalam ak nooflaayam yépp mu jaay ko yàlla jënde ko tedd ngay ëllëg ak texeg ëllëg ak nooflaayu ëllëg ak jàmmi ëllëg mu jaay ba moomatul boppam moomatul daraam néppam mu jox ko yàlla amatul dara kooka moom la ñu tuddee al mooy donop saxaaba yi bu demee ba ci biir waxtaan yi daan waxtaane yonant bi ak saxaaba yi ni ñu demee ak sëriñ ak taalibe yi lu murid bi seetee ñu dund bu gàtte ñu soxla yi bare yii xëccoo xolam di ko xéer ci lu koy lor ni ñu baree te mu leer ko ne mbindeef moom ci biir suuf rek la jëm ci suuf rek te képp ku dee rëccu ak loo farlu farlu farlu loo am amul njàmbaar boo duggee ci biir bàmmeel da nga ne su doon léegi de am na fu ma jaaroon du ma fa jaaraat te am na lu ma sàggane woon du ma ca sàggan am na fu ma sonne woon du ma sonn du ma noppal ndax doomu aadama ju nekk da nga ci sam kan sa bàmmeel boobu xam ne dara du la ci fekk lu sa jëf daan waxtaane ci biir mbirum sëriñ ak taalibe loolu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam daawul dañ di ko fàttali jaam ñi di wëlbati seenu gis ak seen xalaat ak seen xol di jëmee ci loolu la Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu yeete na ba fàttali jaam ñi di leen fàttali fu ñu toll yooyu nekk ci seen kanam ndax li ñu tuddee al murid mooy donob sax sëriñ bi mooy donob yonent bi sallallahu taala alayhi wa am bi suñ borom ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi tawrati wal injil wal qur'an ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يالا جند na ci way gëm ñi seeni bakkan la jënd ak seeni alal manam seen deret ak seen alal mu jaay leen ko aljana ñuy xeex ci yoonu yàlla xeex bi di ñaar jihaad badani ak jihaadu nafsi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddee jihaad bi nga xam ne da ngaa fab jaasi amee sa gànnaay di xeex ca noon ya ngir bëgg a yëkkati baatub yàlla di wut ngërëm ngërëmam mu tuddee ko jihaad ju ndaw jihaad ji mu tuddee jihaad ju mag mooy jihaad ji ngay xeex ak sa bakkan ji ngay xeex ak seytaane ji ngay xeex ak bëgg addina ji ngay xeex ak sa bànneex moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddee jihaar ju mag ji mooy jihaar ji gën a jafe mooy jiite xel doomu aadama kon saxaaba yi sëñ Tuba daf euh, euh, yonent ni ki taalibe yi sëñ Tuba daf leen a mas xamal ne leen ci saxaaba yi ngeen war a roy ndax ñooy seeni baay ci diine loolu muy jamono ji nga xamee ne ba mu demee moom sëñ Tuba ba xam ne adduna ci boppam wan na gannaaw adduna ba adduna wan ko gannaaw adduna wan ko gannaaw ba mu yàgg mu dellu seeti di ko xiir mu gën ko won gannaaw mu delu wonati ko gannaaw ba dellu seeti moy jamono ji nga xamé na suñu borom jaxase na ko doomi soxna yi ba jubootul ak ñoom mu jaxase ko ceddo yi ba jibotul ak moom masa bañ seytaane fu mu ma masa bañ banex fu mu ma masa bañ lay fu mu ma masa bañ nelaw yu bari ak reggaay fu mu tollu kérok bis ba nga xamé né atté bi qadi ji lon ma jaxate maanaam buur boobu ñuy wax la jor te moo doon ba xeexee Samba Sadio te ñu jàpp ca ay jaam te ci bokkoon ci kàngami Lat Joor yi te jébbalu ci Sëñ Tuubaa mu ne ko jaam yooyu na nga leen bàyyi ñu dem dal di firi àtte ba ba loolu xewee nag ceddo yi ci des dal di gis ne kat Sëñ Tuubaa moom dafa xaramal jaam yooyu ñu jàppoon ci sàmba saajo te sa bi dégg ngeen ko ba tàyyi waaye bi nga xamee ne loolu am na te ñoom ceddo yi ñu aajowoo gis Sëñ Tuubaa di ko laaj ndax li nga def ak li nga wax weddi li nga xam ne sëriñ see ko àtte ba ceddo yi nga xam ne tuub nañu ak ñuy tuubul ñépp ànd ci loolu nga dindi ko yow dañoo bëgg a xam ana foo sukkandiku xam ngeen daje ba bi nga xamee ne jéem Lat Joor ak ma jaxase kale jéem nañu jéem ji sëñ Touba ko yonent yi mu daan yónnee ak leetar yi yépp mësu ci yàlla nangoo walbatiku dox jëm ci moom leetar ba ca mujj daf ko xamal ne rus naa malaayka suñu borom yi di ma gis may jéggi ay jéego jëm ci buuru àdduna waaye bis ba nga xamee ne Lat Joor and naag ma jaxate kala ñuy tukki ba jaar ci dëkk bi sëñ Touba nekk mu fàttaliku moom sëñ Touba ne lat ma jaxate kala lu bon bon mas na ko xamalu xaraf te téere yi nee ñu man allamaka xarafan foofu moo laaka te itam xaritu Mamour Anta Sali la woon mu sàmm wala ré tax mu jóg dem di nuyu ji ma jaxate ba mu agsee te fekk ñu lal lal yi ak kàpp yi nangu cee dëgg nangu cee toog mu toog fa suuf bi nga xamee ne ma jaxata ka nee na Lat Joor sunu waa ji dee ngi nii ba mu fiiree sunu atte ba ba noppi jéem jéem a daje moom mënuñoo fexe ba toog ak moom tey jii nag yàlla dogal na lii. fekk sëñ Tuubaa bi mu toogee ba yàgg fàttaliku na ne daañu defe ne kat Lat Joor mee ko tax a jóg te moom waxoon na ne rus na malaayka yi jàlloog moom muy dox jëm ci buuru àdduna mu dal di wax ci làmmiñam ni leen. yow kat ma jaxati yaa ma tax a jóg ndax doon la ziyaare ndax wëngër bi nga am ak sama waajur ak xaraf yi nga ma jàngal buur ba ni ki Lat Joor dal di xam ne dafa bëgg a wan nit ñi ne leen Lat Joor taxu koo jóg lam waxoon ne buuru àdduna du dox jëm ci moom ba tey ca loola la nekk Lat Joor dal nag léegi ma jaxate kalaa nanu teg ci li suñu kóor ñu ne waaw kon nag waaw yow day jaam yi nga xam ne danga nga ne woon fayul bor takkul sëy deful asaka te ajiwul màkka lan waral nga wax ko mu ne dañ leen a tooñ ñu di ay jullit kenn warul a jihaar ak ñoom ñu jàpp leen ñu ne ko at ah, déet eh, ahmadu seex moomu kat leen nañu ne dafa woote woon ak yonent ne yonent la kon nag deretam dagan na mën nañoo xeex ak moom jihaar ak moom rey ko te alalam ku ko lël sañ ko yóbbu mu ne leen ana du leen ko wax ma jaxate kala ne ko moom kat waa kajoor a wax loolu mu ne ko waa kajoor kat ñu seede ci moom bu delloo ci téere yi ndax ñoom lañuy ñuy xareel kuy xareel nit mënatoo koo seede mu ne kon nag waa Samba Sadio ko wax mu ne ko waa sàmba Sadio it xamuñu ci dara ndax ñoom yëguñu lu xew dañoo gis rek gawar yi jóge leen penku ñuy jóge leen kawu ah, dal daje di xeex amatul lu ca teg mu ne pat xam ngeen ne bi loolu amee te xam ne ma jaxate kale nee na ko yow sunu doom ji doon nan la jàngal di la wan yoon léegi yaanu raw yaanu gën a xam yàlla jiitu nga nu fa noo ngi topp ci sa gannaaw dal na pat xam ne wax ja na foofu sëñ bi dal di jóg dem keroog boobu la daal di xam ne nag muy Lat Joor muy ma jaxate kala kum ci doon jàpp nga sa njàmbur ci moom te fekk na booba yeneen doomi soxna yi xam ngeen xew-xew ba xewoon ci Mbàkke Bawal ba mu jógee euh, Mbàkke Kajoor ba tax mu gàddu ko foofa dem Daaru Salaam fekk na it booba tubaab yi amatuñ ak moom jote waaye ba tey ñu ngi am ci moom tuuti wóoloo di ko mu dal ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na boobu murit yi gis nañu lu fees seen xol ci aw meloom ak jëfam ak waxam ak kàttanam ak ngëmam yàlla ak dëddam adduna ak yeete bi leen ak li muy def ci seen xol te xamuñu nan la ko ci defee te dara mën koo dindi te comme ko xas ba def sa xol gisatoo dara lu dul yàlla ak yonent bi sëñ bi amatoo ci àdduna ngees faaleetoo sa mbokk faaleetoo dara lu dul gis yenn rek xool ko teg ci sabat mu di loolu la ñu di leen génnee di leen dóor ñoom ñi daanu jël yi di taal ay sëb di dugg ca biir di yéeg ci kaw garab ba àgg sa njol xel la jiital seen bopp daanu fa xasu jóg waaye buñu leen jàppee di leen métital nangu seen i kër nangu seen i alal def leen li gën a tiis bu ñu dikkee di mu ne leen war ngeen rus loolu saaba yi ñooy seen i bàyyi def nañ leen lu ëpp loolu nit doomu aadama gëm na yàlla ñu fab si teg ko ci kaw boppam di ko siyee ba mu xar ñaari gaal lii gaal daanu fi lii gaal daanu fii te taxul kenn ci ñoom bàyyi diine da nga nekkoon wala nga wàññi ca dara te ñooñee kat yéene leen donn kon nag du ma dégg fi kenn koo xam ne kii am na lu muy tawat wala lu muy jàmbat lu mbir tiis tiis tiis na ngeen ko def bànneex loolu le moo saxaaba yi ci yonante bi sallallahu moo doon meloy gaa ñi nga xam ne tegoon nañ ko bët te gis ko xam na mu demee ci wóolu yàlla ak bàyyi àddina ak bàyyi lépp jublu ci boromam ba mu dugg seen xol dugg goo xam ne moom na ko ba dara desitu ca waccalu waccalu ca dara àddina waccalu ca dara ndey waccalu ca dara bàyyi waccalu ca dara lenn lu dul yàlla ak yonante bi bañ gisee loolu ñu amee melo woowu sax googu ñu saxoon ci melo woowu moo tax ñu doon noon jamono yooyu saxaaba yi nga xam ne ñoo toppoon ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ne kon gannaaw ñoom ñooy di seeni bàyyi ci diine sëñ bi nag mi nga di leen roy alquran dafa wax ne muhammadun rasulullah wallazina maahu ashiddaau ala alkuffari rahamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxoon fadlan min allahi wa ridwanan siimaahum fi wujuhim min asari sujudi dalika masalahum fi tawrat wa masalahum fi linjili suñu borom dafa tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak gaa ñi àndoon ak moom jaar ci aw yoonam te di ko roy te duñu ko bàyyi mukk mu wane ne seen i mandarga lu fës la ci ñoom kattan bi nga xam ne mooy kattanu ngëm ci seen xol dafa feeñ ci seen i xarkanam ngir bari sujjóot gi ñuy sujjóot di jaamu yàlla yërëmante gi ñu yërëmante yërëmante ci seen bopp ak wan bi ñu gën a wan gannaaw adduna ak bëgg bi ñu bëgg yàlla mu wane ne mandarga yooyu suñu borom saxal na ko ci tawreet saxal ko ci linjiil saxal ko ci alquran daañu ñu amee woon melo woowu lan leen ne ñu ñoo di seen i bàyyi ci diine tànk dëggoon ci ngeen war a dëggaat ci ngeen war a jaar ndax suñu borom azza wa bu mu sàkkee doomu aadama teg ko ci kaw suuf daf ko boole ñeenti noon yoo xam ne fu ñu toll guddeeg bëccëg ñu ngi xeexal ak moom mu di bakkan daf koy xiir ci lu mu bëgg te du ko xiir ci lu koy jëriñ mukk mu di seytaane mi nga xam ne fa njàmb waxtu woo xamee ne wii def lu baax jot na mu di la ko woyofalal di dugal tayal ci say cër di la jox ay lay yoo xam ne moom nga war a lay ba bañ a def loolu le boo ko bëttee ba jub tàbbi sa jëf ja mu dugal gaawantu ci sa xol boo bañee gaawantu ba sellal jëf ja mu wan la sa bopp ne la yow mi mën jëf jii nag yaa gëm nit ñi nga daal di fonk sa bopp daal di defe ne ndere nga mu di bànneex mu di adduna ñooñu di ñeent noonu yi nga xam ne ñoo det doomu aadama ci yaa yoonam mi mu jaaroon jëm ci yàlla ñu dogale ko te feeg notu leen ñoom ñëpp ba jaar ci seenum ngàng gi du àgg ci boroomam du mucc tax sëñ Tuuba xam la ne jaam bi suñ toll war nay xalaat ëllëgam war nay xalaat ak mujjam ndax nit dana farlu ci ragal yàlla farlu ci liggéey farlu ci jéem a xam li ko yàlla teg di ca def lu man te du tax mu xam ëllëg lan moo dig mu jëm ndax gis nañu borom yi cër yu rëy borom yi may yu rëy borom xam-xam yu bari ñu dem ba kawe ba ñun ñëpp defe ne ñii ñoo féete ko ñëpp seeni mujj di laa qadarallah wala sama wal iyaadu billahi di yàq loolu mooy li daloon ku ñuy wax balaam ibnu baura mooy li daloon ku ñuy wax biir siis ndax sëñ Tuubaa na فعلته دقيقة ليست ترى كيفية لها الذي تدبر يولج في الليل نهاره كما يولج في النهار ليلا أصلا نينا جيسي سن بروم لو خراني loo xam ne lii kenn mënu koo xam day dugal guddi ci biir bëccëg di dugal bëccëg ci biir guddi maanaam ak njëggalam daf koy dugal ci biir bàkkaar di fab bàkkaar di dugal ci biir njëggalam moom moom jaam bi ba mu koy sàkk kenn fekk ko ci kenn fekkiwu ko kenn dimbaliwu ko te la ko ca soob lay def te moo moom ëllëg moo moom tey moo xam li jaam bi nekk ji ëllëg kon nag nit ci war na ragal boromam war na ragal boromam tey seet lépp yoon woo xam ne yoon mucc la mu jaar daana ko waxtaane ci kanam tuuti incha allah doomu aadama bi kon sëñ bi nee na war nay dugal ci boppam tolluwaay bu tiis boo xam ne ci kanamam la nekk mu di génn ko roof foofu roof di génn ci doomu aadama tiis na tiis boo xam ne te ay secret nga fi yoo xam ne kenn xamu ko dul suñu borom ndax bët boo xamee ne ñaari baaraami day tànk commencé na sedd ba yaram ngi di sedd mu diis gann teqali koo gis boo xam ne dana taal safara woo xam ne dana wex wextan woo xam ne mu ne si koo misaal ndax ñaari cosaana fa daje jëmm ji nga xam ne ban la ci suuf la dëkk waxtu wu dee xewee day dellu ñibbi suuf si mu dëkkoon roo nga xam ne minal mala ilala ca alamul malakut la bokk day dal di gendik moom it jéem a dellu fa mu newoon fa mu jóge woon muy asamaan ak mala ilala ca la jubbi ca la jubbi loolu moo tax doomu aadama bi di bokki bët yi di xool asamaan booba roo gi moo war a ñibbi fa mu dëkkoon jëmm ji itam war a jëm ci suuf moo tax muy diis gann moom la ñuy gas suul ñoom ñaar seenu teqali ko lu mat di xalaat la waxtu woo xam ne oo gi tàmbali na di génn dafa muy génne doomu aadama bi dana fi jaar ci jaar-jaar yoo xam ne dana mat fukki junniy jaar waaye yoo xam ne benn bu ci nekk dana yàgg ci moom ne junni at doonte gaawee na ci nit ñi ne gendi fu bët itam foofale mat ne xalaat daan bu ne ba ci kanam daan wax lan la ab sëriñ di def ak lu mu mën waaye war nañu leen a xamal ne loolu la bokk na ci yi nga xam ne ñi fi ñëw ñëpp te xet li jaam ñi indi leen leeralal nañu jàmm ñi mbóot yooyu ak xew-xew yooyu ngir ñu xam màggug suñu borom ak sañ-sañam ak moomam gu mu moom jaam jaam ak li nga xam ne lu ko neex def lu ko sob mu def ci moom te dara du ko sa dikk ndax bu fekkee ne jaam ñi nga xalaat loolu nga xalaat taxawaayam ci kanamu yàlla tabaraka wa taala nga xam ne mooy almalikul jabbar nga xam ne laa mu àq bari xukk mi lu mu xas ba atte keneen dootu ko seet ala kulli shay'in qadirun lu nekk la man dara tawu ko te ragalul kenn yéemul dara xeebul dara nguuram gi bépp pepp suuf bu nekk fa mu xam na fa mu tegu la fa làq xam na ko xobi garab yeeg ni mu toll ak reen yi ak malaayika yi malaaka ci nekk li nekk sa xol ak picc yi ak yeneen njanaar yi ak ndundëg yi lépp bu ci nekk la ko tax a jóg ak fa mu jëm ak na ak lam ca namm lépp di lu teew te suñu borom ay jaan ñoo xam ne jox na leen ay cër yu màgg ci loolu la kon bu jaam bi xalaat xalaatee taxawaayam ci kanam kooku dana xam ne jaaxle googu mu jaaxle moo tax mu wuti sëriñ bu mat sëriñ ci kaw loolu la ñuy misaal lan mooy al muridu sadiq daanu ca àgg ndax sëriñ ci boppam dafa am ay charte am ay teggin yoo xam ne daf ko war a matal ngir mu mat sëriñ naka noonu taalibe bi itam am na ay charte am ay teggin yoo xam ne war na matal charte yi mat teggin yi bu ko defee sëriñ bi nangoo ci biir ak ci bitti ak njëbbalam yooyu nag yi ci nekk bari gin bari ngir nu mën ko waxtaane waxtaan wi dana war a yaatu li ci nekk rek moo di ne am na nu ngant loo xam ne daf nu dab ci fan yii mujj ak wéradi waxtu boo xamee ne yàggal nañu wax wax ci kaw rek dal di am nii ak bopp buy metti ñoo ngi ñaan yàlla na suñu borom saafara Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu itte woo woon na tërbiyee jaam ñi maanaam dindi lépp lu bon ci ñoom lépp luy waral ak texe di ci ñoom mu dindi ko dugal ci seen xol lépp luy tax a texe moo di sopp yàlla ak bi ak sopp sëriñ bi mu xam la itam ne képp ku aju ci moom sant na la nga xam lu say farata te jëfe ko mu wax moom ci xam ne warlu na dana bind ay taalif yoo xam ne farata yooyu yëpp ngi ci ak sunna ak defin yi ba dara desul ba nga xam ne li mu bind ku ci yem nga jàng lépp dara du la manqué ci sa zahir dara du la manqué ci sa baatin boo ko jëfee sëñ bi lim fi nekk lépp ba lim fi jógee jàngle ak xamle ak yare la fi nekke woon daf daan bind ci xalimaam di joxe ñuy jàng daf daan tomb ay tomb ngir di yee nit ñi di leen xamloo bon boni jamono ak yàq-yàq ak pexey seytaane di leen ko wattandiko lool daf daan rëdd ay rëdd di ci yeete daf daan joxe ay misaal yu bari di waare dégg ngeen misaal yi mu daan joxe yu baree baree bari bari la daa ngi faral di dégg ñuy wax ne bi nekkee gànnaar bokk na ci misaal yu bari benn ci mu di bi murid yi baree di dem bi ñu leen xam dawa ñu leen ñu def ñu mbiri làmb yi daan def boobu moo di watu ay pax ak giri ak ay faaraara yooyu li waaye biñ demee ba sori xam ngeen ni àll gànnaar mel ñu réer fekk nag sëñ bi mas naa taxan lu matt mu baree baree bare jekk ba benn bis jant soog mu dajal ñu ko ci penc mané nañ ko taal buñ ko taalee jëneer ba rëy rëy rëy rëy ba fotol diko seen buñ jël daatan jot gaa ñooñee watu woon wati ay duro mbër yi ak ci gis ma ci biñ nuyoo bu ñaari kéemtaan yo xamné ne kéemtaan la bu señ Touba def tayit yar jam ñi ak yee rek moko ci moko ci dugal bu leen laaje ni leen mu yeen na ngeen def ba ñew ñu leen nun de dañu nuru nuru loo nag daañu sàggan ñooñu le mu ne ni ngeen def nag ba xam béréb bi ñu ne ko ñun day safar woowu ñu taal woon moonu julli mu dal ñu leen ndaxam fépp ku réer safara lay julli fu ñu koy waxee benn lu mel ni wunk dox ca kaw fut ba ñu defee ne wunk la biñ ko bëree ba mu daanu dee ñu xool ko na ah, ki kat si ndax la du wunk mu ne ndaxam lépp loo bëggul ko la jaawale moom bul nural bu ko nuru looti xam ne yéen leen kon ci ñaar yooyu yépp loolu moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ci nuru nuru lu ay nit yaa ñoom a bokk al mar'u ma'a man ahabba loolu lépp sëñ bi def ko daan yeete ngir ne nit bañ a fooye boppam ndax jëmmi doomu aadama lu yàlla diisal def na ci biiram lu diis lu am solo waxtu bu ko jaara fu mu warul a jaar tooñ na yàlla tooñ bu ndax liggéey bu rëy boobu mu liggéey bind jëmm ji mu roog jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa def ca xel def ca xol boo xam ne ndabal xam yàlla la di ndabal leer nit ki walbati ko jëfandikoo ko ci loo xam ne lii seytaane la jëfandikoo ko ci loo xam ne li luy naqari yàlla la tooñ na tooñ bu mag a mag boo xam ne bu ëllëgee dana gis na mu toll ak fa mu toll ci yàlla kon sëñ bañ na kuy nuru nuru ku sàggan bu jógee ci loolu taalibe bi xam na war na xam ne xàq sëriñam lu biis la ci moom te mënu koo matal mukk mënu koo matal tax sëriñ bi ab taalibe du alal ci moom du alal ab liggéey la ab yen la ab coono la képp koo xam ne jàpp nga ko alal bu keroogee da nga xam ne njuumte la ndax am na charte yoo xam ne képp kum dajewul ci yow boo nangoo addiya lekk ko bu keroogee te amuloo añ boo fayee ñaqu woowu nga lekkoon danga nga am tiis woo xam ne da nga rëccu rëccu boo xam ne rëccu du ko mën a weesu bu fekkee ne rafet njort li ci dugal wala danga nga wayafal mbiri yàlla wala danga gàtt xel wala da ngay toppandoo ndax bépp jaam boo xam ne dikk na ni la aslamtu nafsi amuloo añam ëllëg yewi woo ko mu seeti feneen nga gàllankoor ko ba yowmal xiyaam amuloo loo ko fayee bu keroogee dana jàpp xaqam ci yow dana jël xaqam ci yow de ndax Serigne Touba wane na ci Masalikul Jinaan Serigne bu mat Serigne nan lay mel Serigne bu mat taalibe bi jublu ko ak mu dëdd ko lay male du ko campagne du ko propagande suñ ko sañ campagne mooy mu leer ko ne moom rek moo mën a yiwéral mbiram te bu ko fi weesoor du gis feneen fu mu fu mu baax mukk loolu yërmandeem dana tax mu xëcc ko waaye lu dul loolu du ko woo ngir njëriñal boppam ndax nee na bari na sëriñ boo xam ne boo taggee beneen sëriñ fi moom mu naqari ko lu waay baax baax baax boo ko taggee fi moom donte moom xamoon na ku baax la mu naqari ko waxtu woo ne ni wacc nga ko fa dem wuti feneen mu am naqar nee na nag kooku alal ko ne dal na ko ndax bu fekkonte ne muccub jaan bi rek ko itteel kon mucc gi na ko amee ci moom na ko amee feneen ñoom la yemale képp wala yu baari bir ci xaalihi abad loolu tax sëñ Touba xam gi mu xamoon lan mooy xeetli jaam ñi ak lan moo leen di musal ak ci war a jëm ci yàlla lan moo koy àggale ci yàlla ni mu daan tërbiyaa daf daan bu ne jàkk nit xam ci xolam lan moo di ràggam bu fekkee ne dafa rëy lan mooy dindi rëy gi bu ne dafa tàyyeel lu koy lanay dindi tàyyeel gi bu fekkee ne dafa bëgg àdduna ana lana koy dindi bu fekkee ne itam dafa bëgg daraja lu koy dindi ba raggi xol yi jeex moo tax mu daan xiifloo ñii di leen marloo daan tral seeni jëf di yedd ak di ñaax képp koo xam ne gis na ci xol ci sa xol lu ko waral di leen xiir ci ñàkk di leen liggéey loo liggéey bu metti loolu lépp ngir wulli leen ndax ku ñu tërbiyee ak ku ñu tërbiyewul ci zahir boo ko dee xool mi mel ne der wu ñu sëbëj ba mu nooy népp ak der ne dañu ko fees rek wacci ko mu wow noonu ñu wutee mu di leen ba max ci ak wéet ngir ñu bañ demee wàll genn ràdd ngir bu ñu wéetee mën a xalaat seen digganteeg seen boroom seen digganteeg sëriñ bi nga xam ne mooy bunt bi ñuy jaar jëm ci yàlla mooy bunt bi ñuy jaar jëm ci mucc ndax ñi nga xam ne noonu la ñu xamee nit ci fi mu toll bu tolloo ci di jag te jag gi landeegul ci moom ba lëf mën na koo fab bi lëf mën na koo wàll dañ leen daan ber noon Seydina Omar waxe woon saaba yi ku ko ci tàggu bëgg a génn Madinatul Munawwara mu ne la déedéet jihaar yi nga daan jihaar ànd ak yonent bi am nga ci lu la doy léegi li gën ci yow mooy bu la adduna gis bul gis adduna ndax nit dem na ba jag defe ne sotti na mu won fa gannaaw la mu doon def dugg àdduna jaxasoog ñeneen ñu soppi ko ba wëlbati ko dindi lañ ca defoon yàq ko loolu la nag képp ko mën la fegul sa nit defe nga daf daan wax ne képp koo xam ne xamal na la àdduna sonal na la kon nag mbir mi nekkul lu jàppandi nekkul lu woyof nekkul lu yomb lépp lu baax laaj na coono laaj na muñ laaj na sonn te képp koo xam ne bëgg nga li ngay wut nga am ko te nga mucc nga dëgër ci sëñ Tuubaa sax ci na nga seet la mu daan digle ak la mu daan tere nga wattandiku la mu daan tere def la mu daan digle te saxal sa xol ci yàlla ak bi ak moom képp koo xam ne wayfal nga ko wooru nga sëñ bi nag yërmandeem dafa bari woon yërëmoon na jaam ñi yërmande joo xam ne moo raw yërmande ji ndey di yërëm doomam taalibe yi fexe ba jot xàqam ba fay ko mu mënuñu ko ak lu ñu mën a def matam gi matoon ci bëti képp ku ko gis tax na boo ko dee xool yaa ngi jaamu yàlla gis boo ko gis boo toogee balay jël ci yow di la xiir ci lu baax di la bañ loolu bon dana mat diir bu yàgg loolu moo tax sëriñ bu mat sëriñ ñu bëgg ku koy faral a sa mag gi mu mag tax na sàmmonte gi mu sàmme woon toog sharia ak xaqiqa lépp loo xam ne yàlla màggal na ko jox na ko cër ba ca war téere yi dañu wax ne alkaamilu man laa yutfiu nuuru maarifatihi nuura wariihi wàllu yi dana am ak jege yàlla amuk xam yàlla ba yàlla xamal ko ak muccam mu mën a musle itam waaye xamuk yàllaam def mu doyloo xaqiqa ba sàggane sharia wala mu sàggane ci dara sëñ Tuba moom kaamil la te kaamil mooy ki nga xam ne xam gi mu xam yàlla leer xam gi du ko gënd mukk ba mu sàggane dara ci àtte sharia ndax lépp lu yàlla màggal yonent bi màggal ko wala yàlla digle ko daf ko fonk fonk goo xam ne gii mbindeef mënu koo war warmaal na ki ko bindoon warmaal goo xam ne jéggi na dayo warmaal na yonent bi war ma joo xam ne jéggi na dayo sopp na leen itam sopp goo xam ne tax na léppam di texeel itteem itam nekkoon na itte joo xam ne bàyyiwul kenn ci jamono matale na lépp li ñu naan mujje woo ko mu réer sëñ Tuubaa du mujje mukk mu réer lépp ma mat lépp lu mu fekkoon ci sharia daf koy matal ba mu mat sëkk jox ko ci war waaye lenn loo xam ne lii yonent bi indi na ko sëñ Tuubaa war mal na yonent bi war ma bu rawanteeg bu jombanteeg lu yonent bi fonkoon wala yàlla fonk ko mu woyofal ko loolu moo taxoon ci zaahiram ak baatinam lépp ay jëfam di yu yéeme yoo xam ne yi lu yéem jaam ñi la dañu wax ne nag kon mbaam bu ngaaxee mbaam doo nga koy tontu xaj bu mbalee it xaj doo nga koy tontu kon nag képp ku woote ña xeetoog yow ñoo lay wuyu kon nag képp koo xam ne yaa ngi koy askanoo war nga fonk zahir ak batin war nga góorgóorlu ci sa zahir rafetal ko rafetal say teggin matal sa diina daan dem ci teggin ak li ci sëñ Tuuba bind ak li mu ci wax bu ñu demee tuuti kon li war murid bi moo di sopp sëñ bi ba jeex takk ndax sëñ Tuuba nee na sopp gi ma leen sopp du caa génn moo leen di jëriñ waaye sopp gi ngeen ma sopp yéen moom leen di jëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran daf ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha wa huwa alam bil muhtadina yow du caa gini koo sopp rek daal koy mën a texeel waaye ki yàlla sopp te mooy ki la sopp yow mooy texe moo tax niru boobu nga xam ne xeetu ki toppe ak ki mu topp askanoo gi ñu askanantoo ba yàlla boole leen aw yoon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alrawaahu junudun mujannada ruu yi ay lël ay kuréel la yu suñu borom boole lépp loo ci xam ne lii suñ borom wanale na leen gëndale seen diggante dañuy doon benn bët boo xam ne ci feewal na leen dañuy coow ndax wàllu yi bu ci nekk dafa am ñaari leer leer buy xëcc ku ñu yërëm ak leer buy bëmax ku ñu xañ kon sëñ Touba dafa am leer goo xam ne gii day xëcc képp ku yàlla yërëm moo tax te ak leer goo xam ne gii day bëmax képp ku war a texee di moo tax mu ne shaqaa u man lam yahwani qad kutiba képp koo xam ne sopp loolu suñu borom bind na sa texee di ca alluwa nga xam ne lu mu ca bind du ko far suñu borom itam may ko mat goo xam ne fu ko jaamu aju ci moom woowee mu wuyu la may koy sutura soo xam ne képp ku aju ci keneen koo xam ne matuloo la nga woote boo woowee kooku moom mu wuyu la ngir suturaal kooku murid kon daana sonn waxtu jamono bépp dundam bépp mu di ko liggéey te du tax mu matal mu mën a matal lenn ci xàqi ki nga xam ne mooy sëriñ bi nga xam ne mooy buntu texeem yomal xiyam ba nga xam ne bu fekkoon gént na gis ni xaqam demee ak sëriñ bi dana mel ne day julli mu topp ci moom sëriñ bi taxaw di julli moom mu toog ndax gàttañ lu gi mu gàttañ lu ci xaqam mu rawati nag jamono ji ñu toll tax sëriñ bu mat sëriñ benn genn jamono du ko fàtte mukk taalibeem lu taalibe yi bari bari bari bari jamono bu nekk dana fàttali ko ku nekk dana yër xolam gis la ko cay lot ak la ko cay jëriñ taalibe bi nag day nelaw ba yandoor fàtte ko fàtte yàlla fàtte yonent bi fàtte sëriñ bi te mooy wasilaam bi koy àggale ci yàlla kon li koy jëriñ mu ngi tàmbalee ci wattandiku lépp lu ñu ko tere te jëfe lépp luñ ko digal te bari ak tuubam fu mu toll di dell ci yàlla bokk na ci yoon bi nga xam ne mooy tariqul iradati mooy yoon murit ni nga xam ne noonu la ko sëñ Tuba xamle arkaanu bayti jamil qawmi arbaatin biha yu assasu bunyaanul wilayaati nee na ponku néegub wilaya wilaya mooy lan wali képp koo xam ne kii nee nga diw mi wali la saxal nga ne xaritub yàlla saxal nga ne àjjana la jëm saxal nga ne mujj rafet lay deewaale néegu wilaaya nag ñeenti ponk yi ko yenu moom la Sëñ Tuubaa wax ne ñeent la mu ne noppi noppi mooy bañ a baril say wax ci lu dul turu yàlla bañ a baril say wax ci lu dul salaatu ala nabi bañ a baril say wax ci lu dul tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala waxtaane gaa ñu baax ni wala lépp loo xam ne daf lay fàttali ëllëg ndax dañu ne man samata najaa képp ku noppi da nga mucc waaye wax bu baree donte li ngay wax du bàkkaarit fàtte nga yàlla da ngay daal di fàtte àdduna fàtte alaxira fàtte ëllëg fàtte traayu bàmmeel nekk ci wax ji di wax ñu di la ko bindal ba bu yomal xëyaane téere bi nga xam ne ci la ñu bind li nga defoon ak li nga waxoon lépp day diis gën te lépp da ko jàng te wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci yeete gi muy yeete yàq-yàq wax nee na doomu aadama dana wax benn baat boo xam ne du ci jublu lu dul reeloo ñi mu toogal nee na dana xalambaay ci xuri safara yomal xiyaam juróom-ñaar fukki nawet ci baat boobu mu waxoon سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه فك نكو متي سي لامينم بي ديكو خج ني نكو لوي ديف ني مو نين لامين بي داف ما روتال سي روت واي بو موتاخ ما تيت لو بما ميري كو كون لامين بوك ني سي لي گنا لاري سي دوم ادم تاخ ني ني تير ييب بوني خيي ديكو تاوات نكو بو موتي نو موتي داخ ليپ لو واخ سي سلامين داي جيخ يتال سي سا خول تا داف سي ديف دي تاش بو خامني فيك توبلو كو با يالا جيگل لا كو باغا فاتي كو داف سي ديف كون بو ني سنتو نابي وجوهن ak xif xiif itam dafay lu baax ci nit luñ ci jublu du xiif boo xam ne bii day dem ba nit ci waaye watandiku reggaay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa mala ibnu aadama wi a an charan min batnihi doomu aadama mënu la feesal ndab lu yées biiram ndax waxtu nit ki reggee ëpp nelawee ëpp ci soxlaam te day day di tàyyeel day dal di fàtte yàlla te reggaay day talal deret te deret joow ji ci xol bi day fatt leeru xol day tax du mën a wattaatam leer yàlla yi wëndeelu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu am na ci jamono yi ci ay gendiku yi seen jamono bi ay uppi yu uppi yoo xam ne uppi xéewal la uppi yërmande la uppi barke la uppi yërmande la uppi leer la nangeen ngeen fexe ba taatan seen ndab ci jamono yooyu de te xiif nag nee ni moo gën a aay ci bakkan ndax benn alim bi nee na suñ boroom ba mu bindee bakkan ba noppi daf ne ko waaw yow yaay kan fekk ci yépp laaj na leen yéenay kan ñu ne ko nun day jaam lanu yow yaay suñu boroom mu ba mu àggee ci bakkan ne ko yow yaay kan mu ne ah man maay man yow yaay yow suñu boroom tàbbal ko ci xuru safara ko ci mu am ca juróom-ñaar fukki at bi mu génnee suñu boroom ne ko yaay kan man maay kan mu ne ko man maay man yow yaay yow mu dellu ko ci ba am ci juróom-ñaari téeméer ci safara mu delloo si ko ne ko yaay kan ak man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man mu boole ko xiif ñaari weer ak fukki fan dong bu mu ko delloo see ne ko yow yaay kan man maay kan mu ne ko yow yaay suñu borom bu sell bi nga xam ne yaanu moom man maay sa jaam bu ñàkk solo bi ba tax suñu borom kon dal di def ci xiif yërmande ak xéewal ak ndimmalal jaam ci jëm ci yàlla moo tax sëñ Tuubaa ne sumtun baadahu saharun sob mooy jaamu yàlla guddi wa uzlatun ak beru tandiku jaxasoo bu bari jaxasoo bu bari da ngeen gis ci masaalikul jinaan ne am na ay charte nit ki bu fekkee ne dafa mel ne docteur buy faj jullit ñi aajo woo ko ak jaam ñi sañu la beru bu fekkee ne day aji jàngale joo xam ne day xamal nit ñi seen diine ak seeni waru gar sañu la beru na noonu imaam joo xam ne day jiite julli gi sañu la beru waaye dul ñooñu bët boo xamee ne waxtu nit ñi aaju woowuñu la beru mu ëpp yërmande ci yow moo lay gën a jegeel yàlla moo lay tax a mën a xalaat sa digg ak sa borom wala sa digg ak sa bàmmeel wala li nga wees woon ci ay bàkkaar di ko balu ak di ko rëccu ak di seet sa ëllëg fi nga jëm te àgg boo fa te xamuloo loo fay fekk mu tax nga di ko faggu lu musal wa moo tax ñu mu ne wa uslatun an suyuxin bil di xamle batay tey mu ci woo daf ko fi tëral muy lu fi def waxtu wo xamee ni sax nekkatu fi ba nit ñi dem nañu ba weesale seen bopp ci kawam ñàkk a xam la nga xam ne noonu la ñi ko njëkkoon a topp daan jëfe ba ña ca topp lañ daan jëfe ba ña ca topp bañ dem ba réere ko lim bindoon des fi di loo xam ne lii ba tey jaam bu ca jaar mucc mu ne tariqahum ashiratun jaat lawazimuha la budd minha li arbaabi iradat fa maqsaduhu ma yufdi ila safarin minha dalilun ka cheikhin fi futuhati mu ni gaa ñu baax ñi nga xam ne dañoo jóg jëm ci seen borom dañoo sàkkal yoon woowule mu mel ni ab tukki kuy tukki am na yoo aajo woo yoo xam ne dara mënu caa ñàkk loolu lépp mu sàkkal kii tukki jëm ci yàlla mu ci nekk mu nure la ko kuy tukki jóge ci dëkk jëm ci dëkk la ngay mu sàkkal la ko ci loo xam ne lii ak jaamu yàlla la wala ak fogaru wala ak faggu mu ni xam nga ne kuy tukki da ngay njëkk a amul nameel nam ma dem ci dëkk sàngam ngir am fa soxla naka doon ki nga xam ne jàng bi nga xam ne toog na ba seet ne moom nii ak muccam mu ngi ci dellu ci yàlla buddiku wacc li mu nekk caaxaan yi mu nekk ak sàggan gi jublu ci boromam ngir mu mucc ëllëg mu amit dogu fas yéenee def loolu la daal di jóg jaar ci yoon wi maqsad boobu mooy jublu boobu mooy dëkk mooy maa yusdu ila safarin waaye kuy dem te xamuloo fi ngay jëm mësuloo faa dem aajo woo ku lay tegtal ki lay tegtal mooy que cheikhin bil futuhaati mooy sëriñ bi nga xam ne xam na yoon yi ndax jaar na fi ba àgg ba dellu siwaat di wut ku mu ko kookale boo àndee moom mu di la tegtal wala mu jàpp sa loxo wala mu boot la wala mu tungam la doo mooy yoon yi te da nga àgg wa zaadi kuy tukki da nga aajo woo yóbbal lan mooy yóbbalu kii tukki jëm ci yàlla wa huwa tuqaa moo di ragal yàlla ndax seytaane dana ko dana ci ragal a dugg wala ak duggam dana ko jafe ndax xol ñaari bunt la am bunt boo xam ne mooy buntu yërmande mooy buntu malaakam yërmande mooy buntu waar mooy buntu leeru yàlla ak beneen bunt boo xam ne mooy bunt buntu seytaane mooy buntu bànneex mooy buntu bëgg àdduna waxtu woo xamee ne seytaane du yur na xol bi fekk ci nag keneen ci dugg si te mooy li jëm ci yàlla day dellu gannaaw dootu dugg si kon ni nga xamee ne nit ki kii tukki noonu lay xiife aajo woo yóbbal boo xam ne bu xiifee lekk ci ki nga xam ne itam dafa am dogu jëm ci yàlla waxtu boo xamee ne dem na ba yàqu-yàqu yi jamono wala nopp coono coono wala dara sonal ko ba mel ne ci xiif ragal yàlla boobu moo koy dagg ndax bu fàttalikoo li nekk ci kanamam day dal di mel ne ku lekk ba jour maanaam ittéem day dal di wér dal di dëgërati mooy wa zaaduhu wa tuqaa minha silaahu kuy tukki aajo nga gànnaay wa huwa alwudu alladi yanfi najasaati mooy taqoo am njàpp xam ngeen ne àjjana nag àjjana yu bari la dañ juróom-ñetti bunt la waaye juróom-ñetti bunt bunt bu ci nekk ay àjjana yu dul ci biir nit ki mën naa dem ci téeméeri àjjana ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wëree àjjana nee na Bilaal ana ci jan jëf nga ma jiitoo àjjana ndax bu ma duggee rek danaa dégg sa tànk mu ne man de yonentu yàlla bi xaw ma dara lu ma def lu dul ne waxtu wu ma wu sama jàpp tojee rek dinaa jàppaat te fu ma jàppee dinaa julli ñaari rakka mu ne koo kañ loolu la lool kon sa xom njàpp baax na moo tax sëñ Tuuba santaane ko nee na gànnaay la boo xam ne gii day xeex seytaane ndax ki nga xam ne dafa ànd akum njàpp fu mu dajeeg leerug yàlla leerug yàlla gi dana dugg te it suñu borom dana ko musal ci lépp luy wëndeelu loo xam ne lii luy fabbee la loolu tax ulama yi ñu sopp boo jëmee ci wàlli yu nga jàpp boo jëmee ci borom xam-xam nga ànd ak boo jëmee ndax bu fekkee ne yaa ngi ci buur adduna boo xam ne ku dëng la lépp luy ayam yàlla dana la ci musal bu fekkee ne yaa ngi jëm ci nit ku baax lépp loo fa fekk ci yiw lépp loo fekk ci leeru yàlla lépp loo fekk ci ngërëmal yàlla da nga am sa koo am njàpp taqoo am njàpp kon moom gànnaay la li sëñ bi ne min ha silaahu wa huwa alwudu allazi yanfi najasaati min ha siraaju bi zikrillahi jalla ala min ha almataya bi himmatin aliyaati bokk na ci li nga xam ne kuy tukki dana ko aajowoo ndax léeg-léeg mu guddi mu jaar ci lëndam moo di lamp lamp bii leeral yoon wi ci kiy tukki jëm ci yàlla nag mooy turu yàlla sikkar sikkar turu yàlla maanaam sa gémmiñ gi turu yàlla sax ci bari na ay tuyaaba bari na ay njëriñ te it dana dana leeral xol ndax tudd yàlla boo seetee ni ko sëñ Tuubaa waxee ci Masaalikul Jinaan nee na charte la ci sa li nga sol nga laab yow ci sa bopp nga laab bërëb bi nga toog laab nga jublu penku benn nga sarant laayu wala nga def nit kuy julli ni muy tooge nga tooge ko te nga fekk tam nga ànd ak xet gu neex ndax xet gu neex boobu malaayika yi dañuy ñëw di la déglu ak jinne yi nga xam ne gëm nañu yàlla ak yonent bi dañuy ñëw di déglu kii sikkar di fóon gémmiñam bu ko defee ñooñu ñëpp dañ koy ñaanal te ñaanal gi koy ñaanal ñaan gi ñu koy ñaanal dara lu ci moy ndax ñaanu malaayika bu moy jinne yi gëm itam bay ñëw di déglu ki nga xam ne mooy tudd turu yàlla wi moom it ak ñaanam du dellu kon bu fekkee ne mu ngi jëfee noonu turu yàlla woowu suñu borom daf ko santaane ne alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi mu tagg gaa ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla bu ñu toogee bu ñu dijoo bu ñu bu ñu tëggee bu ñu taxawee fu ñu toll rek ñu ngi faral a tudd turu yàlla tudd turu yàlla woowu kon bokk na ci li nga xam ne mooy lamp ku jëm ci yàlla dañ Tuubaa santaane na ko mu ni yàlla ni mu deme ci xol mu ngi deme ne ni nga gisee teen yooyu nga xam ne dañuy def bant ci pind bi walla ñu tabax koog si moom goj bi di ci jaar jaar xam ngeen na goj buum la te buum dafa nooy waaye li muy jaar ci kawam doj la waaye jaar gi mu ci faral jaar bari gi mu bari dana tax mu sàkk ci aw marque sàkk ci rëdd woo xam ne daf koy gas bu mu xóot naka noonu ndox goo xam ne da nga gis muy toq jóge ci kaw di dal fi muy dal te bañ a dakk mukk di dal di dal di dal day dal di gas foofa ak lu si moom ba dëgër dëgër noonu la tur yàlla di def ci xol fu mu toll gàkk bu mu ci fekk daf koy raxas ba set bu fekkee ne nit kii defe ne ko na ma ko war a jafe moo di mu sàkk ñu jox ko lim boo xam ne du ëpp du yées ci tàmbaleem mu saxoo ko te du ko jëlal ci waxtu wo xam ne bi bu la ni nga xam non la ko señ bi ci waxe masalikul jinan kon tu yalla day raxas xol di ko diko di ko aar itam ba ceytaane bi sa dugg di leral day barkel ak dund itam kep ko xam bëgg nga sa dund barkel na nga bari tu yalla dan wax waxtaane xasaayid yi ni mu demé ci tu yalla kon منها سراج بذكر الله جل وعلا منها المطايا بهمات عليات كنت كده نغا وار دار داغا دغ ولا نغا وار موي ليغي وار موي ايتي ام ايتي جو جوري جو كاوي جو خامني جي مولا يوب سما جيم ايتي جوجو داي بولي كاتانو كرو داي بولو روحانيه من منها الاستاذ بعجز والحزام لدى اهل الطريقه حزم بالحقيقه كنت كده نغا وار اب دوك مودي ويب jot li mooy aaj aj wane sa lot ci yàlla wan sa borom ne su aajo woon nga jëm ci moom mënuloo dara xamuloo dara ci moom ngir yëpp moo yor sa mbir yëpp leen ci kar wax soo xam ne borom ngërëm ku yàlla gërëm ak si na si moom it ngërëm la sax ko xeeñ ba mu xam ne fii ku yàlla gërëm la dana wéy ci tu yàlla ba jaxasoog boromam ba dootu xàmmee boppam ak boromam loolu moo tax sikkarkat bi ne ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruuxaani xalal na badna man ki ma sopp ba di ko jaamu àgg naa moom ba jaxasoo moom ba man maay moom moom mooy man ñun jaal ñun ñun ñaar daal ñoo ngi mel ni ñaari ruu ñu dugg ci benn yaram muy moom ak boromam loolu moo tax beneen suuf bi wax ñett ci waxi do xamne abu nuwas daf ko waxon gënal ci leneen raqqa zujaaj wa raqatil khamru wa tashabaha fa tashakala al amru fa ka'annama khamrun wala qadahun wa ka'annama qadahun wala khamru muni kaas bi dafa set wecc naan giñ ci sotti dafa sell bëggu ñu ñoom ñaar boo dee xool forme bi da nga naan kaas rek fi ne ndox nekku ci boo dee xool ndox mi da nga naan ndoxum kese fi nekk gisuma kaas mu ne nit ki noonu la demee boromam ba nga xam ne moom ci boppam dafa mel ne mooy jëmmi boromam boromam mel ne mooy moom ndax xoolu nit suñu borom dafa xaw mel ne lawxul mahfuz lawxul mahfuz alluwa la joo xam ne ci la suñu borom bind lépp luy am ba ba saa di taxaw ñi nga xamee ne seetu lépp lu jàkkaarloo moom noonu la image seetu bi di feeñe li image li taxaw di feeñ ca seetu ba noonu la lawhul mahfuz mel xolu nit nga xam ne liggéey na ba xolam sell day mel ne seetu xam ngeen ne ñaari seetu buñ jàkkaarloo fu war a ñu nekk ci melaw ñu nekk ci biir seetu day dal di feeñ ca seetu ba xolu nit ci sell ci wuuteeg bànneexam ak bari turu yàlla ak liggéeyal yàlla ba xol bi set ba amatul benn gàkk nit bu nelawee wala mu wéet du yàlla lu bari jëm ay bëtam ba dara lu koy delloo si ci àdduna wala lu koy fàttali nekkatul ci xolam seetoom boobu nga xam ne mooy xolam day ubbi ko jàkkaarloog la mahfuz muy jàng secret ca nekk yépp di jànloog malaayika yi di jànloog ruuxi yonent yi di yawmal qiyaam di jànloog arasa kursiyu jànloog lépp loo xam ne di ci malakoot la bokk loolu bu fekkee ne jaam bi def ci àddu ci ak jaamu boroomam xolam fu mu toll day sikkar zikrul qalbi moo ëpp tuyaaba zikrul lisaani maanaam xol boo xam ne bii day tudd yàlla waxtu wu nit ci nelawee ak waxtu wu yewwoo sëñ Tuubaa misaal na ko bi mu naan naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi dabbiru ayan tuurisul xikama nee na samay nelaw jaamul jaamu yàlla la yàlla mi nga xam ne amul bokkaale nee na sama xol waxtu may nelaw it mu ngi settantal aay alxuraan yi ak maanaa yi li ci yàlla wax jëmale ko ci gën ji nit ak lim ci wax jëmale ko ci jaam ñi ak lim ci wax ak waare lu jëm ci bis ci wala leneen jaam bi dana dem ci loolu ba bu fi jógee bu dee it day jaamu yàlla day julli ci biir bàmmeelam xam ngeen ne nee nañ képp ku dee te jëf ji nga daan jëf jëpp dog na lu dul doom joo fi bàyyi woon muy nit ku baax di la ñaanal wala garab boo jëmbatoon ñu ñuy toog ci ker gi wala ñuy lekk ci meññet mi wala jumaa joo tabaxoon wala koo jàngaloon mu xam lépp loo fi defoon ta yiw wa def ci jaam ñi di ko jëriñoo loolu moom tuyaawaam dana la fekk ci waaye lu dul loolu yow mënatoo jëf dara waaye jaam bi jëf ba àgg fi moom suñu borom dana ko may muy julli ci bàmmeelam te xam ngeen ne génn julli boo xam ne jaam daf ko def ci bàmmeelam moo ëpp tuyaa nit koo xam ne dafa dund junni at di jaamu yàlla mos la noppalu ba junni at ñu de mu dee suñu borom dekkalaat ko mu dellu di jaamooti yàlla ba amati junni at ñu dekkalaat ko mu dellooti jaamu yàlla ba amati junni at kon junni ci biir bàmmeel ku am dara darajaam suñu borom may na la gu ju réere goo xam ne amul xiyaas ma ne xol suñu borom li nga xam ne noonu la bindee ci lawxul mahfuz yi bépp secret ak lépp luy ami ba ba saa di taxaw xolub doomu aadama suñu borom daf cee def secret yooyu yëpp a téere yoo xam ne dañ ko caa bind waaye nit tax nit ki du ko mën a jàng moo di nekk gi nekk ci adduna li ñuy tuddee ay attache terrestre maanaam mbiri adduna yi moo koy sëkk mu mel ne béréb boo xam ne dañ fa bind ngelaw li di sëkk ma ba dootu feeñ ñu di ci sotti lu lëndëm di ci sotti lu takk ba mu defub sën nga xam ne mbind mi kenn mënatu cee gis dara waaye turu yàlla ak liggéeyal yàlla ci anam yi ñu ko santaane mooy fàkk suuf soosule ba àgg ci mbind ma raxas ko ba mu set loolu moo tax xolub jaam bu set ba àgg ci dayob set borom day xam secret yi yépp ndax laful mahfuz buñ ko misaalee nga xam ne ci la lépp nekk ba ba saa di taxaw ni ca xam-xam yooyu nekkee ni ca xew-xew yooyu amagul ni mu ca nekkee mu mel na tey jant bi jant bi waxtu sowee weer wi leeru jant bi moo ko leeral leer googu bàyyi ko ci jant bi ba leeral weer wi xam ngeen leer ga ca weer wa ga ca jant baa ko ëpp weer wi leeram di jaar ci palanteer dugg ci néeg fekk ci armoire boo xam ne dafa ànd ak seetu leerug weer wi leeral seetu ba mu dal di tàppe marqué ci suuf xam ngeen ni suuf soosu leer bi ci suuf si bi ci seetu deefu gën a leer bi ci seetu bi da ca weer waaxu gën a leer da ca weer wa da ca jant baaxu gën a leer noonu tam la xam-xam yi jaami yàlla yi demee ñenn ñi ngi mel ne si ñuy seeti seen xam-xam mooy foofu ci suuf si nga xam ne leeruk seetu bi moo ko leeral ñenn ñi ci seetu bi ñenn ñi ca weer wa ñu ca def ca jant ba ba tax na secret suñu borom yi ci kaw suuf borom xol bu leer bi ni mu koy xame xam ne lépp lu am secret mën nga koo xam sax ci xobu garab bii nga xam ne ni ñu ko inspiré fee ca law mahfuz lañ ko inspiré ci lépp loo gis suñu borom ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi lépp loo gis ci adduna lu muy tuut tuut lu mu ñàkk ñàkk fayda mu ngi sàbbaal suñu borom di sabbal màggam gi mu ngi yenu ay secret yoo xam ne borom basiraa ko mën a gis ndegam yaa ngi dëggal borom gisaane gi nga xam ne tomb yi mu def ni ñu ci xamee ay secret yi mu lay wax ne dana amee ëllëg di dëggal borom tëni bi nga xam ne ay petaaw lay sànni di dëggal astrologue bi nga xam ne ci diw yi ak seeni position ak ni ñu seeteente lay jële loolu le nga xam ne moo gën a suufe sax nga xam ne mu ngi seete ci suuf si nga xam ne ci la leer gi jógee ci seetu bi ma waxoon te leer gi jógee ci seetu bi ma nga jógee woon ca weer wa jógee woon ca jant ba ci gën a suufee nga xam ne kooku sax nan la moo gën a moo ëpp xam-xam gisaane kat boobu wala borom pekkaaw boobu wala borom yooyu rek ndax kooku ci lu mel noonu dong seytaane moo for fa leer gi gën a woyee fa la seytaane fore ñëw di ko ko misaal ci yooyu kon nak ka nga xamne mo moo ci dem ba yëre ci jant ba manam muy lawful mahfuz waxuma la umul kitab wa al imam mubin jëlale na ko xam-xamama gën a wóor kon nit ki mën na jaamu boromam ba àgg fo xamne ku ko xamul mun la dugg boppam mukk kon sëñ Touba ne من العكاز بعجز والحزام لدى أهل الطريقة جزم بالحقيقات بوكنا شيء خمنا في تكي dana ko aajowoo moo di dox bi muy sukkootoo moo di yet wi ci tukki jëm ci yàlla moom lan moo di aw yetam mooy lot gi muy wan boroomam lot bu mu lot nga xam ne du jëfe dara ci kàttanu boppam wala ci xam-xam lépp daf koy wéer ci yàlla wan yàlla ni man laa hawla wala quwata illa billahi al ali al azim xaw ma dara mënuma dara lu dul loo ma mënal wala loo ma xamal jox boobu mu jox yàlla mbiram mépp yàlla mooy taxaw taxawaayam yàllaa koy defal dañ leen xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne jaam du dañ du jaamu boroomam te nee na sama jaam mënu la mënu maa jéem a jege jegeñ ci lu gën a wóor li ma ko sant du dañ nag di ma jegeñ jegeñ ba ma nekk lamiñam ma muy waxe di bëtam ya muy gisee di tànkam ya muy doxe di loxoom ya muy jëfe nit bu àggee foofu xam ngeen ne kon fekk na mu dañ tam ci lépp luy kàttan wala luy mën man ba jox ko yàlla dong kon lott boobu muy seedeel yàlla mooy yetam mu muy dokkam mu muy sukkootoo wal xisaamu kuy tukki da nga laxasaayu maanaam laxasaayam googu ceinture bi mooy gës mun dogu bu mu dogu gannaaw ba nga xamee ne settantal na ci kawti fi yàlla yépp ba àgg sëñ Tuba teg ci waru fatun wa hiya ixwaanun doom himu mun ma al wafa'i bi sirrin fil uxuwaati na am sette sum àndal sette lan mooy mbooloo mi muy àndal ndax kuy tukki war ngaa am mbooloo mu àndal loolu moo di wane ne mbooloo mi ñan la moo di ay mbokkam ñu mu bokkal yoon wi moo di ñoo teg ci waru fatun wa hiya ixwaanun doom himu mun ma al wafa'i bi sirrin fil uxuwaati na am sette sum àndal sette lan mooy mbooloo mi muy àndal ndax kuy tukki war ngaa am mbooloo mu àndal loolu moo di wane ne mbooloo mi ñan la moo di ay mbokkam yi mu bokkal yoon wi mooy nit ñoo xam ne ñoom moo ma bokk ak bëgg nga xam ne amuñu jenn jàngoro ji ñu koy wàll duñ ko xëcc jëmee ci àdduna ndax li mu bëgg la la la ñu bëgg li mu jëm la jëm nga xam ne dañuy wéttalante di góorgóorlu loolante kenn ku ci nekk boo gisee sa moroom mu dellu mu dolli la ak ñaax dolli la ak yokk ndax xam ngeen ni nit yi mooy def ci nit lépp lu mu doon moo tax mu ne war a fatu waye ixwaanu lu mu mun ma aloo faay bi sidqin fil uxuwaati muy jaam ñoo xam dañoo dëggu ci mbokk boobu ñu mbokk ma nak kon la ma fa boobu ma wax won jam bi dana ko xam ba nga xamne imam al-ghazali neena na ñu bind yi demee mu ngi demee ni ki ci wattu al-quran ni xaraf al-quran yi nekk ci yuuram gi noonu la bind yëpp nekkee ci lawxul mahfuz sëñ Tuba nag digal na la kon ni nga nekk ci yàlla ba ca ak foo toll bàyyi ko sa lépp jox ko sa lépp jaam ñi nga bokkal nekk ci kaw suuf wax na la nan ngay nekkee ñoom moo di nga xool leen ñaari bët bëtub xaqiqa ak bëtub sharia bëtub sharia mooy lan mooy nga di leen digal aw yiw tere lu bon di ci sonn di leen laabire ci lépp loo leen xamal ci lu leen mën a jëriñ nga wax leen ko di doxante ñoom ak mbokk di jokku mbokk ànd ñoom ci zahir képp koo ci xam ni kii nekk na ci lu dul noonu nga tong ko ngir bëgg mu jàjj ba dellu di ko dimbali itam koo ci mën a dimbali nga dimbali ko ngir jëmm yàlla kooku mooy bëtu sharia ak bëtu xaqiqa mooy lan mooy lu def ci lu bon nga muñ ko nga muñ seen lor ndax xam gi nga xam ne yàlla moo leen di forcer ci li ñuy def maanaam lépp lu ñu def coobareel yàlla lay yàlla moo leen ci xiir ndax nee na war ngaa gën ne mbindeef ñëpp buñ dajee woon ñoom ñëpp bëgg laa lor lu toll ne bën bënu puse te yàlla du sotti mukk naka noonu yi ci kawam ñi ci suuf ñëpp ngir bëgg laa jëriñ lu toll ne bën bën du sotti yàlla nag mu ko du sotti kon nag lépp loo xam ne yàlla dogal na ko jaarale ko ci jaam mu deelu mu def la ko ñun loo ak ci na ci sàmm xàq yi li mu def yàllaa ko dogal loolu muy bëtu xaqiqa ngay nangu kon ngantam te nga ñàkk sukkandiku ci jaam ñi sukkandikul ci yàlla waaye bul sukkandiku ci ñoom loo tax sëñ bi ne wa yaaxil xibata wa riya maa al ujbi wal asadi wal kibra daa wa adami rahmati lil insani wa hubbi rifatin ala al aqrani wa kullu man jamaaha aw ihtawa wahidatan minha fa xaasirun tawa mu ne yow sama mbokk bi ci diine na nga wattandiku jëw ndax lu bon la lu tiis la na nga wattandiku njistal na nga wattandiku naw sa bopp gis sa bopp na nga wattandiku añaan na nga wattandiku rëy na nga wattandiku ñàkk yërmande ci doomu aadama yi na nga wattandiku soppa wuuteeg nit ñi maanaam bëgg a feeñal ne yaa gën nit ñi wala yaa leen féete kaw mu ne képp koo xam ne boole nga jikko yi wala nga am ci benn nee na ku perte nga ndax jikko yooyu day waral sa jëf ñu delloo la ko suñu borom du ko nangu li nga xam ne nag mooy jiitu ci liy jëriñ murit moo di teggin yar ak teggin sëñ Tuubaa dafa bind ni nga xam ne noonu la murid bi war a jëfe muy bi nga xam ne ne mag ñi sësoon ci moom te nga xam ne mu ngi leen di yar bépp yar ñu di ko roy lépp lu ñu mën bind nañ ko leetar di ko ñaan ni ne ni mu leen bindalee ci fiq lu leen di xamal seen faratay ràññee yépp bindal leen ci tawxiid lu leen di xamal nañu war a fase suñ borom akub yonentam ak ci malaayikaam ak yawmal xiyaama yëpp ñu leen ko xamale xamal leen ci tasawuf na leen bindal loo xam ne lii ay teggin la leen di xamal mu daal di bind nahju qadaa il xaaji bi mu ko bindee mu ne hada wa inni lyawma du ijaba baad almuridina dabi inaba qad talabu nazman xawaata adduba li yata addabu wa daka wajaba mu ne na nga yëg ne tey jii maa ngi jóg di wuyu lenn ci murid yi ñi nga xam ne dañoo dellu ci seen borom seetaat bëgg am li leen jëriñ ñu xam ko ñu xam nañuy jëriñoo ci ak taalibe xam nañuy jariñoo ci ak topp yàlla xam nu ñuy jëriñoo ci lépp loo xam ne sonne nañ ko ngir jëm ci yàlla mu ne sàkku nañ ci man way woo xam ne bii teggin yépp daf cay nekk te loolu nag lu war a war la mu ni teggin moomu képp koo xam ne sàkku nga jaamu yàlla sàkku ngaa topp yàlla wala nga sàkku lenn njëriñ te àndul ak moom daañu la xañ ak texe daañu la xañit la ngay wut mu ne ndax teggin mooy li gën ci àdduna ak mooy ndam li gën ci àdduna ak ndax day leeral xol te day jegeel nit àjjana naka noonu lay warale say dëkkaale tagg la yàlla ak yonent bi tagg la sori la itam safara mu ne ba loolu amee ma dal di jóg yàkkamti lool ànd ak gaaw ci bi leen tontu te maa ngi yaakaar ci teggin yi ma leen di xamal suñu borom dolli ma ci ngërëm te dolli ma ci itam ay tuyaaba mu daal di tàmbale nag ne ci tariqatul adabi rahmatu saghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir mu xam le ne yoonu teggin mooy na nga yërëm ndaw nga wet mag te képp kuy sa moroom nga def ko ne sa bopp mu daal di istishhad ci wax ci irham xayyi jami al xalqi kullihim wa ra'i fi kulli xalqin xaqa man xalaqa mu ne yow sama mbokk na nga yërëm mboolem bindeef yépp te nga leen te nga di leen xool bëtub ñeewant ak bëtub yërmande na nga wekk ñi mag ci ñoom te nga yërëm ñi ndaw te nga sàmmoonte ci bépp mbindeef na nga ca sàmmoonteeg àq ki ko bind te mooy suñu borom ni mu la sante bépp mbindeef nga sàkkoonte nga sàmmoonte ci ak yërmande maanaam àq ki ko bind naka noonu lépp lu ñu bind muy doomu aadama muy leneen lu dul doomu aadama loolu moo tax ñu xaraamal yàq yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne fekk na kuy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko yàq baaxul mu ne ko ah naa ndox sax yàq ngi ci mu ne ko doonte sax yaa ngi nekk ci takku géej gi di jàppit ngay tànq lu bari eh, yàlla dana ko jàppe ne yàq la kon ndax lu tax da nga koo war a sàmmonteeg xaq ki ko bind te mooy suñu boroom te kon dara tuutul ndax lépp lu mu mën a doon yàllaa ko bind te yàlla mi ko bind ko màgg la màgg yàlla googu nga ciy seet moo tax ngay sàmmonteeg mépp def mu yàlla bind rawatina nag doomu aadama loolu moo tax ni sëñ Tuubaa santaane waxtu woo àndeeg say morom na leen gën a woyof lépp lu ñu woo nga di leen ci dimbali loo man ba mel ne yaay seen ndaw donte yaa leen magit ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sayyidul qawmi xaadimuhum ki nga xam ne mooy liggéeyal nit ñi mooy seen sang maanaam mbooloo mu ànd te nga xam ne mooy doxi yonent yi di def yi ñu aajowoo yépp mooy sangub ñooña yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a ànd ak kuréel ci saaba yi ñu dem ci àll ba mu yàgg bi nga xamee ne waxtu lekk jot na te ñu xiif ñu rey benn gàtt ci ne man de maa koy fees ci ne maa koy rendi ci ne man de maay féetewoo yéwénal gi yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne man de maay taxan maay dajale matt mi ñu ne ko dit yonentu yàlla bi yow kay loolu daanu la ko fegal toogal nu mu def mu ne déedéet suñu borom sip na waa joo xam ne bu àndeek mbooloo lépp dañ ko koy defal ndax dafa amoon waa yoo xam ne dafa àndoon ak mbooloo moo xam ne ci saxaaba yi biñ ñibbisee ñu ngi koy tagg tagg yoo xam ne ndax nee ñu moom daal fu mu toll mu ngi tudd yàlla te fu mu toll mu ngi julli te dafay saxoo koor day def nangam ak nangam ak nangam di ko ba mu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ana ko ko daan defal nangam ak nangam ana ko ko daan defal nangam ñu ne ko ñun ñëpp ku ci nekk daana ko defal mu ne yéen ñëpp kenn ku nekk ci yéen yaa ko gën loolu moo tax Sëriñ Tuubaa di liggéeyloo murid yi mu ne nag kon war na jëmm ju nekk nga yéene yiw ñeel mboolem nit ñi képp koo gis na ko yéene lu baax na ko yéene li nga yéene sa bopp te ngay seet xaqi yi aju ci yow ci ay doom aadama loo ca man ci matal ko nga def ko loo ca mënul it nga wattale boroom ñaanal ko an zahri xaybin maanaam te fekk nekku fa ndax nee ñu bépp jullit boo xam ne dafa ñaanal moroom jullitam te nekku fi teewul ñaan googale suñu borom du ko delloo te doomu aadama bari na ay xaq ak i moroomam xaq yoo xam ne bu yomal xiyaamee yépp dañ koy delloowaat ba tax na lu mu gën a góor góorgóorlu ci xaq yooyu mu di ca dabaatal lu man am na njëriñ bokk na ci di jéem a fay xaq yooyu foo toll wala rawatina guddig aljuma wala foo wéete nga di ñaanal mboolem jullit ñi nga xam ne faatu nañu ñi am ku leen ñaanal ak ñi amul ku leen ñaanal ñëpp di ñaanal say wajur ndax xaq yi nga xam ne am nañ ko ci yow di def defal hadiye sa sëriñ ndax xaq yi nga xam ne waxoon naa sànq ne mënuloo koo fay mukk mukk mukk ndax sëriñ bi la jàngal sax xamal la lislaam sax mënuloo ko fay ndax nee ñu man àllam ak xarfan fa huwa mawlaaka rawatina nag ki nga xam ne moo la war loolu nga xam ne daañu ko waxtaane ji ci mujjug waxtaan wi buñ ca àggee nga xam ne kon nee ñu yomal xiyaam nit daañu seet ay jëfam ba àjjana war ci ba mu ne wëngañ jëm àjjana moroomum mbindee te nga mu ko poñe ko ne ko yow kat doo dem ndax ameel nga ma xàq joo ne faw nga fay ma ko bala ngay dem mu xàq jooju jan la mu ne bis sàngam mas nga noo toog ba mu yàgg waxtu julli jot nga rocci ko dem julli ji te yëgaloo ma ko fàttali woo ma wala bis sàngam toogoon nañu nga xam ne nangam baaxul tere nañ ko te man xaw moo ci woon dara nga bàyyi nu ma jëfe ko te waxuloo ma dara ndegam xaq yooyu la ñuy topp dana xam le ne kon xaq yi mbindeef ak mbindeef bari na te bokk na ci li tax xaq yooyu mat te xaq ji ci nekk kat bu fekkente ne say tuyaaba fab nañ ci di ko fayee xaq yooyu ba mu jeex amato benn tuyaaba dañuy ci seen i bàkkaar lu tolloog nga leen ameel teg la ko te kon gis nga sëñ Tuubaa na ci jawaaru nafis ne taflis mu fallas mooy ki nga xam ne moo fayit dëgg mooy kooku nga xam ne dafa ñëw yemal xiyaam ak jaamu yàlla bu bari yool bi rëy ba ko seen ñee ko muy fay xaq yi ndax dafa xasoon kii dafa xaañoon kii dafa saaga woon kii dafa jëwoon kii dafa gëddoon kii muy fay di fay di fay bala ma amoon jeex borom xaq yi jeexuñu ñii ñëw di laaj seen i xaq ñii fab seen i bàkkaar di ko teg ba mu diis gën ba mënatul a dem mu ne kooku moo di mu moo di mu fàll kooku moom la taflis dugg ci moom muy muslu ci taflis di yee itam mbindeef ci ñu xam taflis li koy waral ñu waral kon ñu farlu kon nit ki bari bokk na ci li baril liy tax ay xaqam woyof mooy nay fas yéene di def luy jëriñ mboolem jullit ñi moo di ci ñaan moo di ci laabiire moo di ci ku dee te mu mën a dem mu dem ànd ca janaasa ga ndax tuyaaba ja rëy na ku feebar mu di ko seeti képp bépp julit bu mu xamal loo xam ne li dana la jëriñ mu wax la ko bu dee lu mu la xamal loo xam ne daf lay lor mu wattandi loola ko def ko mbokk def ko ne boppam loolu le dana tax ay xaqam néew yomal qiyam mi nga xamee ne wax nañ ne ay astaghfirullah yu bari dana tax bakkaar néew mi nga xamee ne inna anzalnahu yu bari dana ta leeral xol qul huwallahu ahad yu bari mooy suratul ikhlas yu bari dana saxal tawhid ci xolu doomu aadama boo xamee ne waxtu wuñ demee ba gëm yu bari rékkiku yi rëng-rëngi nit ki moom ki nga xam ne daf koo bari loon moom xolam dana dal ci fi mu ne woon na fa teg du rëng-rëngi lu néew néew du déng-déng mu ne nag kon gannaaw xaq yooyu yëpp nit ki daf cee war di def li ko war lépp lu mu man war na itam di bari delloo ci xolam mooy toog ci béréb boo xam ne daf fay wéet di seetluwaat boppam si mu jaar ak li mu jëf ak li mu sàggane di xalaat di xalam ci ak minute di fàttaliku ndok yi nga xam ne moo nekk ci kanamam te muy bari ay saraxam ndax sarax itam dana fekk juróom-ñaar fukki deehin yu ñaaw Sëriñ Tuubaa wax na ko nee na sarax bari na njëriñ bari goo xam ne gannaaw yowmal xiyaam ñetti kera fa am ker gi nga xam ne mooy keru aras malaayka yi suñu boroom yi ñoo koy seeloo ak ker gi nga xam ne mooy liwaawul hamdi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saaba yi ñoo ci toog ñetteel ba jëmm ju nekk muy doomu aadama ji ci nekk ci sa keroog sarax ngay seelu keroog bi nga xamee ne jant baa ngi lang bay xetal yuuri doomu aadama yi nga xam ne kon sarax am na njëriñ Sëriñ Tuubaa nee na benn koppar rek boo ko joxoon nit kooku dem sarax ko keneen kooku sarax ko keneen ba muy juróom-ñaar fukki nit ba muy juróom-ñaar fukki junni nit ña ko mujj saraxe daañ ci am tuyaaba ju toll ne ki ko ñaqoon ci dooleem yëkkati ko njëkk koo saraxe ci am dana ko am nu wane ni itam sarax dana guddal fan dana wàññi bàkkaar dana dàq ay musiba naka noonu bépp dépense boo xam ne def nga ko te rek nga def ko ngir jëmmi yàlla moo xam nga def ko ci sa njaboot wala ci sa mbokkum jullit te ngay jokk ak bokk sa Tuubaa dim diggaan na ko digal na ko lu nit lu baree baree bëri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan ragalloo jaam ñi di leen tiital ci way alkanay mujjub jamono mu jub jamono toll nañ ci ndax misaalam sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ba tàyyi am na bis mu génn jant baa ngi lang di waaja a xonq mu ne fii jant bi toll li des ci bis bi buñ seetee adduna ba mu tàmbalee léegi moo li tàmbalee fii nu toll ba ba addunay tukki mu ngi toll ne li des ci jant bi so ni mu ëppanteeg li jant bi weesu ci suba ba mu fenkee ba léegi noonu la demee nga xam ne kon ndegam ba fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkee la demee woon noonu kon ku nekk leer na leneen noo ngi ci axiru zaman am na benn bis mu ne mab'asi wa qiyamu saati hakaza nee na eh, yónni gi ma yàlla yónni mu ñëw si jamono ak ba saa di taxaw mu ngi mel ne ñaari baaraam ñii li lii sute lii diggante baaraam bi fi mu saxee ba fii fii bi yem ak bii fi mu saxee ba fii noonu lañ si tànn ak li ci des ni mu tuutee noonu la bi mu dikkee jamono digganteem ak bi saa di taxaw noonu la toll waaw lu muy def bëggee mucc ëllëg te du ñeetaane ay tiisam du bari na def xelam ci yàquk seytaane ndax seytaane ngi ci jëmmi nit ñi seytaane ngi ci xeli nit ñi mu ngi ci seeni xol mu ngi ci seeni cër mu ngi ci seeni lamiñ suñuy wax seytaane taxaw ci lamiñ wi di wax lu yàq bu ñuy jëf seytaane dugg ca sun borom tabaraka wa taala nee na alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzzuhum azzan fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum addan xelu nit ñi mu ngi dugg ci xelu nit ki waxtu wuy xalaat mu di dugal ci boppam loo xam ne lii day yàq ak gëmam loo xam ne daf koy xiir ci lu koy lor mu ngi ci xolam itam di ko bëgg loo loo xam ne daf koy lor mu ngi ci ay cëram ci lépp lu muy jëf mu di ko yàq sëñ tuba nee na wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqalan abadan tanal muraad nee na bul toogaale mukk ak koo xam ne kii kudul koo xam ne da nga dolliku ci moom diine da nga dolliku ci moom xel جالس غير من به تزاد دينا وعقلا عبدا كان المراد ولا تجالس غير من به تزاد دينا وعقلا ابدا كان المراد nee na bul jekkaaleeg ku dul koo xam ne danga nga dolliku ci moom diine ak xel wala ngay dolliku ci moom diine rek wala xel nee na boo ko defee danga am li nga bëgg lépp mu ni walaa yarum min ka layaadan arimu illa faaltahu li zaaka tugramu nee na sa benn mbokkum jullit bu mu sàkku ci yow dara loo mën te defaloo ko ko nee boo defee noonu yomal xiyaam def na la teral mu wax njëriñ lu jullit jëriñ moroomam ni mu baree tuyaaba donte sax dàllam dafa dagg nga may ko ak mbuum su ko yeewe walla mu am lu ko neex nga dem ndokkeel ko walla nga laabiire ko walla mu sàkku ci yow ndimmal lu mën a doon nga jóg ànd ak moom dem dimbali ko nga def ko ngir jëmmi yàlla mu ni nag amma tamalluqun wa xawful xalqi wa tamaun fihim wa hammu risqi nee na yooyu yëpp ba yim ci teg fa yubidul abda an irrahmani nee na nag ragal mbindeef ne yow moo xam kàttan gu mu am la wala alal ji mu am wala leneen lu mu doon lu dul yàlla nga di ko sibooru wala ngay ragal mbindeef yi wala nga di xemmem li ne ci ñoom ba leen topp topp goo xam ne teguwul ci dara ak di ittewoo wërsëg ba fàtte ëllëg fàtte yàlla nee na yooyu yëpp day soril yàlla jaam bi nee na suñ boroom mu yonent bi nee na suñ boroom jubal benn jëmm dong ci say pexe wala ci say wax wala ci sa jëf moo gën ci yow adduna ak li ci biiram nee na ne jaam bi muñ lépp lu ko dal xam ne boroom moo ko teg nee muy di ay tiis mu di ay tawat mu di ak ñàkk nee lépp lu mu doon ahmadul yadaali yi nee na xéewal ak suñu borom la lu tax mu ni ndax képp koo xam ne suñu borom tegu ko benn nattu ci àdduna tegu ko wenn tiis nee na day daal di jëng jëm ci àdduna rek def ko muy këram te bu boobaa mu dal di sori gal dal di ko mu ne gaa ñi nga xam ne suñu borom tegoon na leen ay tiis ci àdduna te ñu muñ ko bu keroog yomal xiyaamee buñ leen di fay képp ku amoon jàmm fii boo jànloog seen pay ga da nga réccu leen ñee te danga ngéejoo bi nga nee ci àdduna sa yaram bépp ñu di ko siso ba mu dagg too mu ne gaa ñi nga xam ne yàlla teg na leen balaa te ñu muñ ko ne bu yomal xiyaamee kenn du peese seeni pay buñ ko waññ kenn du ko natt nee dañ koy jóor rek te du amub gàpp nee bu yemal xiyaamee ba nga xam ne njàqare ak tiis jànkonte na ak jaam ñi ñu fab siraat gàcc ko ci jigéenu jahannama suñu borom dana yebal aji yéene muy woote ana ñi daal liggéeyal jullit ñi ñu ne nun de noo ngi nii mais suñu borom dal leen di teg ci yoonu àjjana ñi dal di dugg àjjana mu ne yomal xiyaam suñu boroom dana tàbbal ñett àjjana ci benn sarax rek mooy ñett ñi mooy góor gi nga xam ni mooy liggéey alalam ñëw ñu jënd ñam indi ko ci kër gi sax soxnaam si nga xam ni moo digle ñu tibb sarax sarax ki doon yalwaan ngir yàlla ak mbindaan mi nga xam ni moo dem fab sarax bu dugub wala ceeb wala lu mu doon wala xaalis dem joxe ko ko ñett ñooñu ñëpp bu keroogee ba xiis wi labal jaam ñi suñu borom dana leen woo dugal leen àjjana kon nag joxe am na doole te ndegam sarax amee noonu doole ak ci addiya te ni addiya ëppee doole sarax mooy ki ñuy jox addiya ni mu ëppee doole ki ñuy sarax am ni mu ko ëppee daraja tiis yooyu metti na naka noonu yonent bi sallallahu alayhi musul dañ di ko xamle am na ku ñu wax Qataada dafa nekkoon di jihaar ci yoonu yàlla ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu bënn bëtam bi ñu bënnee bëtam mu dem na sunu boroom mu dem day wax ko yonent bi yonent bi ne ko boo ko muñee day yowmal qiyaam daañu la fay. waaw Qataada dig leen Qataada. bi nga xamee ne foq nañ bët bi ci yoonu yàlla bi ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi xamal ko tuyaaba ju màgg joo xam ne yomal xiyaam dana ko dikkal moom mu won ko ne dafa am daal sayt te su sañoon daal bëtam bi day dellu na meloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di delloo bët ba ñaanal ko bët ba gën a rafet beneen bët ba woon mu amoon feneen soxna soo xam ne dafa daan daanu saxul koo xam ne dafa daan daanu di say bu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg mu ñaa dafa bëgg yonent bi ñaanal ko ba dootu say yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko soo muñee day suñu borom dana la fayee àjjana bu la neexee nag ma ñaanal la mu deñ jigéen nga ne ko kon na nga ma muñ yow man xiyam suñu borom fayee ma àjjana waaye nag nag ma ñaanal ba bu may say dootuma xawiku yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko ba buy daanu bu daanoo awraam duutu feeñ loolu yëpp dafay wane ne tege tege yooyu nga xam ne dafa tiis te li muy tiis tiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam le ne li gën ci nit ki li ëpp ci moom moo di mu muñ ko ak lu mu tiis tiis ngir tuyaaba ja ni mu màgge yemal xiyaam ak na ko nit soxlaa ni nit soxlaa tuyaaba keroog bis baa bu ñu di leen tuus te des noonu. naka noonu yooyu bare njëriñ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bari ñëw la bokk na ci liy barkeel ak dund na ci li taxa a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaam loolu téere bi sëñ Tuubaa bind ñu di ko wax mafatihul bishri nga xam ne daanaka salaatu ala nabi ko tax a jóg boo ko sa tuyaaba kenn du xam nu mu toll ndax da nga boole ñaari tuyaaba da nga julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te yéene nga xam ne la sëñ Tuubaa amoon te mu di ak jagleem dund téere yi demee noonu suñu borom dana la ca jox loo ne li dana la doy sëkk ndax salaatu ala ci boppam ay ngëneelam mënee su ko xiyaas naka noonu ci xasaayid yépp ñun yoo xam ne yii mënee fu ko takk mënee fu ko lim la ndax xasaayid yi sikkar a ngi si maanaam tur yàlla ci biir julli ci yonent a ngi si biir jéggaloo ngi si biir mooy istigfaar ñaan suñu borom a ngi si biir jaamu yàllaa ngi si biir wut ngërëmal yàllaa ngi ci biir rawatina nag xasaayid yi nga xam ne sëñ bi ko bind gannaaw ama shahid naa bi karam ndax wax na ne xasida yi mu bind yépp xaaj la lim bindoon bi mu daatan ci géej gi ak lam ca wax lim bindoon ci biir géej gi nga xam ne lépp ngërëmal yàlla la li ko tàmbalee nag ci at ma muy léegi xam ne maanaam daawi daawas ba muy jógee jolof ba ni mu fi jógee mooy lim bind gannaaw ama shahid naa bi karam xam ne lépp lu ci waaye jublu ci jàng ko suñu borom dana la ko ci defal te loolu suñu borom defal ko jagle boo xam ne ni mu ko waxee mooy anta lazi an sababin qad tuxni man shitahu min al walaya muxni yow suñu borom bi nga xam ne ku la soob da ko defal la la la mu bëgg ci lu sabab ci ku la soob ci mbindeef fi yow mi nga xam ne yaay doylul nit ba dootu soxla feneen leneen yaa ma doylul rawatina ne xasida boo xam ne la ca sëñ ba yéene woon bi koy bind moo la tax a jóg maanaam loola nga ci bëgg a def mu ne ñu yëkkati ñim bind buñ jógee jolof bi nga xam ne ne atatee mu jógee jolof ba ni mu fi jógee lépp lu di waay sàkku lépp lu waay sàkku mu ngi ci nga xam ne xasida bu ci nekk am na lu ko tax a jóg waaye loo ca am ko ci waaye li ko tax a jóg ci boole ëppee nga xam ne kon képp koo xam ne kii da nga dem ba sa bàkkaar jaaxal la ngay tuub xasida bu ñuy wax at tawbatu nasuux al jaalibatu lil futuux moo ci gën a gaaw wala taxmiis képp ku tawat di wut saafara matlabu shifaa yi ci gën a gaaw képp koo xam ne da nga bëgg a yéeg ci yàlla faral a jàng Jazbul Quluub te di ko teewlu moo gën ci yow képp koo xam ne da nga ay may yu jóge ci yàlla di dotti foo toll di jàng Muwaahibu Naafi ànd ak laab am njàpp jublu penku te teewlu ko képp koo xam ne da nga bëgg yàlla fatxu ubbi sa xol defal la ay leer di jàng fataha fatahan lam yura qattu aw wala ngay jaawartu bil furqaani rabbiyal mu'in nga di ko faral a jàng képp koo xam ne ci ñaan yàlla nga fas yéene jubanal sa mbir di ko tàllal say loxo di ko ñaan lépp loo bëgg na nga di teewal tuhfatul na ak as-sindiid sindiid képp ku bëgg mucc na nga koy faral di jàng boole ko sart yooyu ànd ak teggin képp koo xam ne dafa am lu la yitteel nga di ko sàkku moo xam dafa am ko koy xëccool wala yow rek koy wut te mu jafe na nga faral a fonk rabbi bi maa yashrahu al azhana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad lajaa képp koo xam ne da ngaa bëgg a mucc ci sa ay noon na nga fonk waqaani xafiidun qaahirun jalla maani u képp koo xam ne da nga bëgg yowmal xiyaam tuyaaba ju bari na nga fonk saana ilaahi xasida la boo xam ne sëñ Tuubaa nee na su borom defal na ko taxaw na taxawaayu bépp jihaar bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas a jihaar ak ba mu fi jógee ñu ko wuutu jëpp jihaar jiñ mas a jihaar képp koo xam ne da ngaa bëgg a mucc ci safa ak ci musibay adduna na nga fonk jaawartu bil furqaani rabbiyal mu'in bépp xasida gum ci doon am na ay secret yoo xam ne mëneefu koo lim mëneefu koo wàññi waaye ki koy jëfandikoo lépp a ngi aju ci yéeneem ak ci sellu xolam akuk laabam akuk teewloom bokk ci lii gën a nangul ñaan aji ñaan gi bu fekkee ne ku am sëriñ la nay teewlu melaw sëriñam ba mel ne dafa jàkkaarloog moom ndax mooy bunt bi nekk digganteem ak yàlla moo koy gaaw a àggale loolu mooy tax ak ñaanam du tag yooyu yëpp bokk na ci ndax yërmande ju metti bi sëñ Tuuba amoon ci jaam ñi fas leen yéenee jëriñ ba baalu leen dara lépp lu xam ci lu leen di xettali wala lu leen di jariñ muy ci adduna muy ci alaxira dikke na ko te xamle na ko itam kon waxuma la taalibe yi rek waaye jullit ñépp lépp lu ñu aajowoo ci war a xam leeral na ko lépp lu ñu di jëriñ feeñalal na leen ko lépp lu leen du lor itam xamal na leen ko muy seen mbiri diine muy seen mbiri adduna nam diglee ne ci moom na nga xam lu fay farata yi nga xam ne ràññeel na la ba tax moom ci boppam mu warlu na bind ay téere yoo xam ne dana xamle masala yooyu yëpp muy ci ñetti xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xami lislaam muy tawxid muy fiq muy tasawuf tawxid mooy ñeetal yàlla teg ko fam ko war a teg gën ne suñu borom wàcce na ay téere yu jóge asamaan ñu wàcce ko ci ay mbindeef yoo xam ne tudd nañ leen ay yonent la jaadu ci ñoom la war ci ñoom la xaram ci ñoom malaayika yi mu di tawxiid mu xamle ko tawxiid muy fiq muy tasawuf lu ci nekk indi na ca lu doy sëkk loo xam ne lii ku ci jàpp nana la doy da dootoo aajo wala leneen loolu bu ngeen ko weddee na ngeen seet ñi mu yaroon moom ci jëmmi boppam ak ñi ko gënoon a jege ak ñi daan teew ak moom xam nañu lépp lu ñu war a xam ci seen diine am nañu ab yar bu mat sëkk ami teggiin woyofal seen bopp meloo meloo xam ne képp ku leen gis ku ñu taqool wàll la ak jub ak bu baax seen meloo itam dara mënu leen a soppi ne tawxid mawahibul qudus ak yeneen yi sañ bind doon a sëkk ñu ne faq tasawudu sigaar tasawudu shubaan aljawharu nafis maqaala jamono yi nga xam ne ci lay bind masalikul jinaan xam ngeen ne masalikul jinaan moo fondé yoonu murit ndax booba sëñ Tuubaa dogu gi mu dogu ba jëm ci boroomam ba xam le ne képp ko ànd ak moom te xam loo tax nga jëpp mën nga wuti feneen foo xam loo waaye képp koo xam ne li mu nga bëgg moo di yàlla ak yonent bi na nga bàyyi li nga jàppoon te ànd ak moom mu won la yoonu yàlla mu ne xusil lawaamira ma am tisaali yasunka man an anil misaali nee na nga topp ndigal yépp te jëfe ko suñ borom dana la ñoŋal moom mi nga xam ne màgg na wëris misaal na nga wattandiku lépp lu ñu tere ci daw ko hmm. lépp lu ñu tere na nga ko wattandiku te ngay daw bu ko jegee na nga koy daw ndax li wolof ci léeb ne ñax bu wow dana lakk gu tooy lu am la ci bàkkaar ndax xam ngeen ne baaxu gën di mindi sallallahu alayhi wa yàlla bàyyi alak ay mbindeef ngir mooy bu metti waaw waaw waaw ndax xam ngeen baaxu gën di mindi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla bàyyi alak ay mbindeef ngir mooy bu metti waaw waaw dañu ne ak taalibe bala ko nit a am daf koy xam nit lépp lu mu am te xamu ko dana jafe mu jëriñu ca ak taalibe li ci jiitu yar ak teggin ak teey te sëñ Touba melee na melo woo xam ne jombant naag nit di ko woote amee yeneen i melo lim fi jaar ba dem lépp yeete la waar na nit ñi yar na leen digal na leen tere na leen dama ne sànq ñi mu yaral boppam ak ñi sutoon ci ñoom ci moom ñëpp nit ñu mat lañu soo ci ku teey lay doon ku ànd ak yar ànd ak teggiin xam la ko war digganteem ak yàlla ak yonent bi xam la ko war digganteem ak sëriñ bi xam la ko war digganteem ak moroomi taalibeem ak mbokki jullitam yépp léegi la wax ne sëñ Touba wax na ne bi taalibe yi ci moom mu bindal leen ay teggiin ñu jàng ko war koo xam xamal ne leen lenn du jëriñ doom aadama lépp lu mu jëfe te àndula ci teggiin nee leen yoonu texe moo di teggiin kon lu dul ab yar ak i teggiin amul njariñ nit bu bëggee wane ak xëram na ko wanee ku yar loolu la sëñ Tuubaa bëgg yàlla ak yonent bi loolu lañ santaane teey te bokk na ci teey la nga jëm nga xam na mu toll xam na nga cay jëmee laajte na nga cay jëriñoo wala nga seet ko ba xam ko def ko waaye du coow lu bari du njistal du xëccoo du buuxante du xuloo du xeex bu ngeen jàngoon masalikul jinaan wala ngeen jàng nahju qadaa'il xaaji da ngeen xam ne yooyu yëpp sëñ bi daf ko wax a wax a wax wax ba mboolem ñu mu jamono dégg nañ ko ba jëriñu ci ñi ko fekkul woon te gis li mu bindit te fas yéenee jëriñoo topp nañu loolale defe ko noonu la dama wax sànq ne ku mat la moom sëñ Tuubaa ku mat nag ku mat rek ay ànd ak moom kon képp ku ne moom ngay woote te nga wane sàggan sàggane sharia wala nga sàggane teggin wala nga sàggane tasawuf wala nga sàggane lenn loo xam ne lii sëriñ Tuubaa diisal na ko ndax li ko yàlla ak yonent bi diisal xamuloo sëriñ Tuubaa wala joxuloo ko xaqam newoon naa matal xaqam la taalibe yi deful kenn mënu ko nag waaye kenn ku nekk war nga góorgóorlu lépp li nga ci mën nga jéem koo def misaaloon naa sànq beneen taalibi bu ko yàlla wanoon nga gis ko ci gént danga nga fekk mu jiitale julli di taxaw yow nga gàpparu noonu la demee ci ñàkk matal xàqam nanu dellu siwaat jiital ab yar ak i teggin fu suñu xel ndax lépp loo àndul ak sa xel doo ca jëriñu lépp loo àndale ko bi yar ak i teggin doo ca jëriñu sëñ Tuubaa bind na ko mu ne fa fi lawaamira ma am tisaali yasun ka man jalla anil misaali nee na na nga seet ndigal li ñu la digal yépp nga jàpp ko te jëfe ko bu ko defee suñu borom dana la ñoŋal dana la sellal ci àdduna ak alaxira na nga wattandiku li ñu tere te nga daw ko ndax bàkkaar gaaf la gaaf day lor ci ko amee lor ñi moo àndal yonent bi sallallahu alayhi bi ñuy dem te Tabuuk dem nañ ba ay kàmb yoo xam ni fekk mar wi metti na jant bi tàng dox bi sori na am ñu jiitu woon ñu tànk ca ndox yooyu leen naan ko bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam agsee dafa dal di nekk ku ci naanoon na ko waccu yàbbi leen li ngeen sexoon te ngeen galaxndiku bu kenn naan ci ndox mi mu ne lu tax ndox mi béréb bu mbugal la mooy xeet bu ñuy wax aad bu suñ borom yónnee ci ñoom hóot mu di yonent te ñu fetteer lu bañ di ko lor di naqaral yonent boobule di mooy yàlla ba suñu boroom mere leen ba alag leen alkande jëmu leen alakoon gaas ga moo fa des ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne taf leen seeni bakkan borom bu birab bii kon nag bàkkaar gaaf la bàkkaar bu mu doon gaaf la moo tax sëriñ bi ne wajtani bil manhiya anhu bi firaar minhu nga daw ko wa min hubbi lazizul misraar te ngay daw tooñkat bu mu doon ndax dafa mësoon a am benn jigéen boo xam ne dafa mës a ñëw ci yonent yàlla Musa alayhi salaatu wasalaam ne ko man day damaa tiit ba sama tiitaange ji yàlla na ma bàyyi jàmm ma jaaxle nag ñu tegtal ma la ne may yàlla yónni ne la yow ci mbindeef yi ma ñëw di la wax li ma def mu ne ko li nga def lu mu doon mu ne ko man de dama yaakaar ne yàlla du ma baal mu ne ko lu tax mu ne ko man de dama moy te sama doom jooji ma rey ko yonent yàlla Musa ne ko gaawal nga génn wala ma daw ndax léegi mbugal wàcc lakkaale ma ci tiit moomu jigéen ji tiitoon ba réccu ba tuub tax na suñ borom ci boppam mer ne Moussa alayhi salaatu wasalaam sama jaam boobu ak lu mu mën a def xelam dellu na ci man ba mu amum tiit am njàqare ba jóg tànkam yooyu mu jéggi di seeti ku ko xettali ku ko mën a won buntu tuub ak nañuy tuube ba ma baal ko mu ñëw nga di ko daw li nga def moo gën a réy si man li mu def kon bu sëñ bi ne nit ki war nay def inaaba azaba innil yama bu ijaaba baad al muridina zawil inaaba al inaabatu lu ama am solo la mu ne woon wir da fi kulli shay'in turdi bi zaaka xaaliq asnaa wal ardi da ngay yéene ngërëmal yàlla ci lépp looy def soo xëyee nga yéene képp koo nuyu nuyu nga ko ngir yàlla képp koo dimbali dimbali nga ko ngir yàlla tànk boo dox def nga ko ngir yàlla bu ko defee sa bis boobu bépp ba ba jant di so yaa ngi mel ne kuy jaamu yàlla di julli di sëlmal di julli di sëlmal di julli di sëlmal ba jant so mu turdi bi zaati xaaliq as-samaa wal ard mu ne jëf jooju ngay jëf tàmmal sa bopp lépp loo jëf nam ca ngërëmal yàlla da nga ca gërëm loo suñ borom mi nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf sëñ ko wax de wa in tujaalis man ilalla man ilal jal yaquudu aw yanqaadu taasi min xajal nee na boo dee jekkaaleeg képp koo xam ne day wammat ay mit jëme ci yàlla wala moom ci boppam mu nangoo wammatu jëm ci yàlla mooy ki wut fu mu jube di wut fu mu xettali ko di ziyaare di laaj diineem di ziyaare ji sëriñam nee na kooku bu fekkee ne moom ngay jekk jekkaaleel suñu borom dina la musal ci gépp gàcce yomal qiyaam rawatina nag ki koy def nee na wa in turid an laa tufaariq al xuyuur fa rabbaka tur fil mamarri wa duruur bu fekkee ne danga ngaa bëgg doo tàggoog ay yiw mukk ci biir ak bitti na faral di fàttaliku sa boroom te di ko tudd ci fa ngay jaar ak fa nga dëkk mu ne képp koo xam ne kii seet na lépp lu mu defoon ci ay mu fas fa yéenee def place boobale mu def ci yiw suñ borom dana def ak dundam muy dund gu ñu gërëm di dund gu ñu nangu gu barkeel ñu am jaam nga xam ne nag ñoom laa doon wax sànq ne dañoo sax ci luy gërëmloo suñu boroom di wattandiku lépp lu mu bañ suñu borom daf leen a tànnoon mu ñi nga xam ne ñi leen jiite muy suñ ñoo xam ne suñu borom dafa peese woon seeni ruux ñu wat ruuxi jaam ñëpp mu indi leen ci jamono seet nag ruu ya xeetoo ak seen ruu yooyu te aggul ci ñoom mu boole leen ak ñoom ba leen boolee ñoom wan leen na ngeen xamal sama jaam ñi ne leen yéen ñii yéenay sama bunt yéen ma ne bu ngeen nëbbee seen bopp bu keroogee bu ngeen layoog jaam ñooñu daañu leen yey loola tax Sëriñ Tuubaa ne zimaamul wara asri la dallahi fi yadihi omarumtuhu min malikin qaada bil ani ñoo jaam ñooñu nag ñi ci gën a sell gën ci mat di ñoo xam ne suñu borom daf leen a tànnal boppam ba xajalul dara ci ñoom seen xol yooyu suñu borom wattu ko fees ko dell nanguwul seen xol yooyu ñu bëgg ci lenn wala ñu bañ ci lenn yàlla dong na ca leneen newu ca genn bëgg newu ca genn bañ newu ca genn ragal newu ca bu ñu ragal mbindeef du ñu xem ne mbindeef ñu wut lu neex kenn du ñu ragal kenn itam nga xam ne niki Ibrahima alayhi salaatu wasalaam yonent la moo nan xaritu yàlla ba mu dee xale bu tuuti la ko suñu borom bañ loo lépp lu dul yàlla bañ loo ko xiram yooyu ñuy jaamu te xamagul woon dara nekkagul yonent màggagul ba mu damm leen ak danse ba ca war a juddoo yépp safu ko ngir bëgg gi bëgg yàlla ba mu demee ba am doom ju tudd Ismaayila ta mu bëgg doom ji li nga xam ne ci xol bi Ismaayila am na ko ci ci place li mu néew bëgg googu mu ko bëgg naqar na yàlla ndax yàlla xajalul ci xolu Ibrahima dara xajalul ci keneen ndax xaritama mu loolu moo tax mu digaloon ko ne na nga ko rendi na nga ko rendi ngir wàll wi mu am ci sa xol ba duma bokk sa xol bi duma ko bokk ak kenn naka noonu Yuusufa alayhi salaatu wasalaam biñ ko tëjee ca kaso ga bi nga xamee ne suñu borom daf ko xamaloon gént ku gént boo ñëwee mu nettali la ni gént gi demee ba ñaari gars yi bokk bokkaloon ca kaso ga bi ñu inventé seen gént ñëw nettali ko ko kii na ko man de damaa gént yenu mburu picc yi di ko lekk kii na ko man de damaa gént di nar di nal reseñ mu daal ne leen yow mi nga xam ne de da nga doon ñor reseñ da nga génn kaso gi te da nga nekk serviteur buur bi da nga amee ay naanam yow mi nga xam ne da nga gént woon yenu mburu picc yi di ko lekk daañu la rey daañu la sarab wékk la picc yi maanaam tani di lekk sa yàpp ñu ne ko nag dañ la doon nax nun noo ko xalaatoon rek mu ne nag suñu borom dogal na ko ba ma ko waxee waaye moom Yuusufa kookee nga xam ne mucc na nag ba jëm ci kar buur ba mu ne ko boo demee na nga may waxtaane fa buur ba ndax yàlla mu fàttaliku ma bëggee ne ma kaso gi suñu dal di mer ci noonu muy xolam bi mu di ci seenu kenn ku koy xettali naan nañ ma waxtaane fa moom jël yàlla dem ci kooku la suñ borom daldi koy nattuwaat mu am ca kasa ba luñ manqué juróom-ñeenti at ngir nattu naka noonu la Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wax na nekkoon na fi bërëb ci bi mu nekkee ci géej gi béréb boo xam ne yàgg na fa yàgg yàgg yàgg ba nga xam ne bërëb bi xaw na ko sàppi xaw a sàppi bi ñu ko xaw a sàppi suñ boroom dal di koy sotti nangami junni melentaan mi sam ko di ko màtt mu dal di xam ne loolu mu ko béréb bi sàppi woon moo waral loolu la ndax suñ boroom duggul xolam bi dara di ci jeexital muy lu muy bëgg wala lu muy bañ wala dara ndax fiir goo xam ne suñ boroom fiire na ko ko mu daal di na ma daal booba laa dal di xam ne بهيت من عند نفسي ما نم سما بكن موما جمال سي مير مومله مو دال دي نك صد قصائد يو خن وني نانا خولم بي سلنا دراني كو سي يالا القلب مني يفي ذا اليوم قد سلم من كل ريب وبالرحمن قد علم ndax neena yalla boko bolé ak lenn mu bayila ak lola mom wati yalla boko bolé ak lenn ci jeng jëm ci dara wala am loy bëgg wala loy ragal mu Cheikh Ahmadou Bamba ci ak njaal biiram ci jógam la lépp jógoon ci xolam ba dara nekk ci mas naa toog ba mu yàgg mu ne sëñ Ibra Faati yow de xanaa bëgg nga ma mu ne ko lool mu ne sëñ Gaawaan xanaa bëgg nga ma de mu ne ko lool ba mbokkam yooyu yëpp daj mu ne man de bëgguma leen ñu ne ko ah mu ne man bëgguma kenn yàlla rek laa bëgg ni wane na na xolam bëgg newu ci bañ newu ci yàllay kese rek a ci nekk loolu moo tax mu mel na mu mel àgg fa mu àgg loolu taxoon na képp koo xam ne xetu bëgg yàlla wala ngëm xeeñ na ko ci sa xol mu bëgg la ba xëcc la jëme ci boppam loolu mooy li ko gënoon a xiir ci mu bëgg saxaaba yi di leen roy mu ne min saxaabin tabattalu li wakilin qad hadaahum bi nuuri xaqil yaqini mu di mbokkoo ci cofeel saxaaba yonent bi ñi nga xam ne dañoo def tabattul mooy ñu dagg seen bopp ci jamono bàyyi lépp wacc seen i kër wacc seen ndey ak seen baay wacc lépp jëm ci suñu borom rek tabaraka wa taala ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax suñu borom daf leen a ci leeruk xaqul yaqin xaqul yaqin ak ilmul yaqin ak aynul yaqin ay martabay yaqin la xaqul yaqin nag mooy bi ci gën a kawe ndax ilmul yaqin xam ngeen ne mooy boo xamee ne suukar dafa neex safara dafa tàng nga xam ne xam nga ko ci théorie misaal nañ la ni mel waaye mosuloo gis suukar mosuloo koo mos مثل وجه السفرة مثل وقال لامن فوق ما علم اليقين عين اليقين ما ينقد بدتهم سفرة لي لامن قوم تانغ نخوال نمو لير خوال نمو يتاكل نكنون يتم سوكر سي دقنغ شي سيخكو بموسي سيجبين غا مصني مصفح نخمنا خمنا نمدمه خمنا لهم نمو ويخي لامن قوم خمنا نمو مل شي بيقر نيجا مصد خمنا نمو سفر kooku mooy ilmul yaqin mu def xaqul yaqin mooy séddu bi maanaam safara dañ la cee sànni ba nga dugg ci biir safara wi mu féetale ko féetale suuf féetale ndeyjoor ak càmmoñ féetale wet gu nekk ba nga xamatoo dara lu dul safara gisatoo dara lu dul xam ne buñ la laajee na nga tudd da nga naan safara buñ la nee ku la jur nga ne safara la nee koo xam nga ne safara kooku mooy xaqul yaqin xaqul yaqin googu mooy wóolu bi nga xam ne bu ci jaam bi àggee lay mën ne alqalbu min ni fi zal yawmi qad salima min kulli raybin wa birrahmani qad alima ndax sëriñ bi nga xam ne dafa mat matale sarti sëriñ day fekk taalibeem ci biir bàmmeel weesu na loolu daf koy aw waxtu wuñ ko ne jëyi jëme ci bàmmeel bi moo koy gàtt moo koy téye ñaari loxoom mën naa am sax mu gunge ko ba firdawsi loolu mooy tax moo koy tax a mat kon nag soxlawul kenn di xalaat wax yi ñi nga xam ne ñu jaambure lañ maanaam ñu sori lañu mbirum tasawuf ak mbirum xaqiqa ba tax ñu naan doomu aadama fab jëmmam di ko jébbal kenn ku dul yàlla garaaw na rëy na ñàkk xam na mu demee tax ndax fab sa jëmm jébbal ko kenn ni mu demee ku ko weddi bis bu ne nga def ko ndax boo tawatee jébbal sa borom sa bopp médecin bi lim la digal ngay def lim la tere ngay bàyyi sunna la yem fa bu fa weesu gaal sax boo sa duggee jébbal nga sa bopp borom gaal ga sa doom sax da nga koy fab jébbal ko sëriñ bi koy jàngal kon nag fañ ko yóbbu nekku fa rawatina ki nga xam ne mooy xam sa sababi texe xam sa sababi texee di ki nga xam ne jaamu na boromam ba suñ borom defal ko leeru xol goo xam ne yaral xafaaya bi aynal qalbi zahiratan kama yushahidu ma taxta al asimnaati jëmm ji nga xam ne ni nga xam ne bu médecin bi xoolee aji tawat ji day xam la ko jot xam ne cheikh alxaqiqa bi nga xam ne baari la bu ne jàkk taalibe bi dana xam fan la ko tawatam jóge ak lana koy faj ni nga xamee ni fukki malade buñ bokkee benn feebar feebaru xol buñ ñëwee ci cheikhul murabbi bi du leen boole jenn jëf ndax dafa war a bàyyi xel ni nga xam ne ni médecin bi la war a bàyyee xel ci kii bari na deret wala deretam jeex na kii mag la wala xelal la kii am na kattan wala amul kattan yooyu yëpp mu war cee bàyyi xel cheikhul murabbi bi noonu la demee noonu lay demee ci ruux yi noonu lay xamee seen i tawat noonu lay xamee seen i garab noonu lay xamee dose ba ak na ordonnance ba war a demee kooku waxtu woo xamee ne dem nga ba sës ci moom moo ni إن ساعد المقدور أو ساقك القضاء إلى شيخ حق في الحقيقة بارئ فقم في هواء واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تصانعه نانا وقت وخميني دغل السنبرم بي مانغ نلا بانغ أدتي شريني حقيقة بوخمني بي بخم حقيقة لك فقم في هواء نغا توب لكم نيخ لم واتبع لمراده تغا توب أين ودع كل ما من قبل كنت تصانع تغا باي لب لودن جفت sëñ tubaa nee na fakkun la da cheikh ka maytin wudia bayna yaday xaasilihi tantafia boo nekk ci sa kanamu sëriñ na nga mel ne néew bu ñu tëral ci kanamu ki koy sang waxtu fu ko neex la koy wëlbatee ndax lu tax yow yoon wi nga soobu xamula ca dara dara dara dara yoon wi nga soobu xamula ca dara ki nga xam ne xam na yoon wi xam na sa tawat xam na la lay faj noonu nga bàyyee sa bopp docteur bi noonu nga war a bàyyee sa bopp ak moom mën naa la sax ne demal tànk ndox naan nga tànk ndox naan ndeka tànk ndox moomu kat mooy sellal sa ci bépp gàkk boo xam ne bii moo lay naajeel ci bis ba yowmal qiyaam mën na leen a jugal defal ma nangam rek nangam jooju mu la sant nekk sa fajug aajo adduna ak waaye lépp ngi aju ci ngëm gi ma ko gi nga ko gëm na nga wóolu ko ba sopp ko dayab sopp te bu ko dendaleeg dara na ko gërëm maanaam na la neex neex boo xam ne ba buñ wanoon ci beneen keneen ku wàcc ci kaw suuf ne la lépp lu yàlla am jox na ko ko du tax sa xel dem ci moom bu ñu wax Cheikh Abdoul Aziz Dabakh ànd naa taalibin bu ñuy wax Ahmadu Mubarak nga xam ne moo fa ci xam-xam ñu dem ba jub benn dëkk Cheikh Abdoul Aziz Dabakh di ko nattu ne ko dëkk bii ne ci la sama sëriñ nekk ndax bëgg nga koo gis mu ne la bëgg naa ko gis kay yow mi kay mën a nekk sa mu ne ko man day bu suñu borom sàkkoon téeméeri junni jëmm yoo xam ne dañuy mel ne yow toll ne yow lépp loo am ñu am ko lépp noo mel ñu mel ko it soxlawu ma leen yow dong laa soxla ndax yow yaay sama cër yow la ma sama borom jox nga xam ne ko jàjj na ko wan na ko ne sëriñ bi nga xam ne mat na sëriñ te nga ku ci daf la war a doy lépp na nga ko bëgg xubban zaatiyan laa xubban ma laa xubban sababiyan alxubbu zaati yi nu mu wuuteeg alxubbul maanawi moo di nii ni nga xamee ne noonu nga bëgg jëmm ji ba nga xam ne jëmm ji boo ko gisoon mu def leneen itam bëgg gi nga ko bëgg mënu la dañ moo tax ñu ñu ngi ko misaalee sayidna aboubacar siddiq radiallahu anhu ak sayidna omar radiallahu anhu dañu ne sayidna aboubacar qad ahabba muhammadan nabiyya وعمر قد احب النبي محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو بكر جيم يونس بي صلى الله عليه وسلم سي بوبم لا بغ بلا خن سيتو سي درا مودو يونس مودو يونس بل مو واخ سيتو سي بروم لا جيغي ولا موم سي بوبم خلاتنا ولا لنين لوم مانا دون رك لوم واخ ان سي لولو مودي صديقيه الصديقيه لو كوي كوي كوي مقام بو جافي اغلا لو سيدنا ابو بكر يونس بي صلى الله عليه نيو بي واخ سي ابو بكر mu ne ngëmug Aboubacar buñ ko faboon teg ci plateau balaa fab ngëmug mbindeef yëpp teg ci beneen plateau ngëmug Aboubacar dana leen wat naka noonu nga xam ne noonu la Sina Aboubacar gëmee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy misaal ci Ibra Fall noonu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko Sidna Aboubacar gisee daf ko bëgg ba bëggatul ndeyam bëggatul ndeyam bëggatul baayam xamatul ndeyam xamatul baayam xamatul li ko neex xamatul lu ko naqari bi sallallahu alayhi wa sallam ne balaa kenn ngëmu kenn ci yéen di mat dama koy gënal boppam gënal ko ndeyam gënal ko baayam sidna abubakar siddiq radiyallahu anhu ne ko yaa ma gënal sama bopp yaa ma gënal sama ndey ak sama baay sidna omar ne ko yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay gënal ma képp ku sama jëmm ji yonente bi sallallahu alayhi wasallam dellu na ko balay sa gëma mat dëgg-dëgg ma gënal la sa bopp sidna omar soog a dellu si ne ko yaa ma gënal sama bopp nga xam ne kon gëm mooy buum gi gën a dëgër ci bu yeew ab saxaaba cib yonent wala mu yeewu ab taalibe ci sëriñ am na sax taalibe bi nga xam ne mat na dëgg dëgg matal na sart yi nee na yomal xiyaam diw sàngam mi ma yaakaar bu ma nammee dem àjjana te yow buuma ca bugguma naa dem safara buñ ko waxee ku xamul xaqiqatul irada dana rëy moom du xam la mu demee waaye loolu xam yàlla dong la moo di xam yàlla gi mooy yàlla lim ma xas ba cërale nangu naa ko te du ma ko wécceeg dara te dootuma xoolati dara gëmb naa ndax seddu naa جنود المصري رضي الله عنه بمن نكه دي بروم جامونو دي نيت كو خام يالا سن بروم جوخ الاسم العظيم الاعظم ام نك في المغرب بن عالم بو خامنا دا فا جانغا جانغا جان يير يير يير بوغا خامنا مانا تنكو غانغام ليك كين ووتال لين ووتال بو خامنا ني مو ووتال نيت ني سي ادنا ابنتل ورسك ني ابنتل فني ابنتل ëppantal wér gi yaram nu mu ëppantalee ëppantalee daraja yi nan ni mu ëppalee yomal xiyaama ko raw ndax nee na wala alaxiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdilan alaxira mu gën a rëy ay daraja ca la daraja yi gën a rëyee ca gën a lënt ba bi ëppale te gis nga fii da nga gis koo xam ne dana xëy di sonn soo bajantu soo lu mu añete ko nga gis koo xam ne ay milliards lay denc xam nga ne ñoom ñaar sore nañu nga gis nit koo xam ne day juddu bu am ñetti waxtu mu dee koo xam ne day dund téeméeri at ak lu topp nga ne ñooñu seen i at ëppante na nit koo xam ne suñu borom daf koy jox daraja joo xam ne waxtu mu jógee ñu téyee ñëpp kenn bu jaar ci yoon wi muy jaar ba mu jàll ba dem nga gis koo xam ne kenn du ko romb ba xool ko wala da ngay dooyëg ni sax mu ngi fi suñu borom nag nee na ni daraja yi ëppante ci àddina àllaaxira la rawe kon nag xam ne suñu borom gën a lena ndax sàkk na mbindeef moo xam ne mas na tax mu farwaasu fépp mu di nuuxin alayhi salaatu wasalaam mu mu labal ñi ko bañoon ñëpp te mbindeef la suñ borom sàkk ñaari jaam xam ne ñoo yem ci moom képp mu daganal kii mu nar ko di ko war di ko sëf wala mu di ko rendi di di lekk te du ci am benn xaq ndax gënal gum gënal kii naka noonu mbindeef yi noonu la leen gënalee mu sàkk mbindeef moo xam ne téeméeri junni mbindeef yoo xam ne kenn ku ci nekk tooñ nga ko tooñ ko xam ne war na la yóbbu safara ba safara yey na ci yow mu ne ko baal leen mu baal abu talib al makki wax na ci qudul qulub ne inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima sa'at lam yuqimha mu ne suñu borom am na jaam yoo xam ne buñ ne ko woon suñu borom sonnal saa bu saa taxaw saa du taxaw kon nag képp koo xam ne ci sa réer nee nga mbindeef mënalul morom ma dara ak réer daf laa wër loolu mo mooy aljahlul murakkab mooy réer ba noppi te xamuloo ne réer nga ndax xaqiqa ak sharia dañu bokkiwul sharia mooy lan mooy loi loi moom ñëpp a ko bokk public la waaye nag xaqiqa mooy sa digganteeg président de la république bi wala ministre bi yoonu kenn nekku te la ko soob lay defal gannaaw yàlla moom moom moom lépp te lu ko neex def te kenn du ne ko lu tax nga def lii te moom te dara amul du amul fu mu yem nga xam ne li moom fii la yem léegi tañu ca dara amul jaam bu ko neex mën na laa defal lu ko soob te yoonu kenn du ca nekk waaye bépp jëmm boo xam ne bii doyadil nga ci yàlla tànnal boppam sopp ko jox ko kattan jox ko yërmande gërëm ko woyofal nga lu yàlla diisal réere gi ñu réere mbirum rububiya ak ubudiya mooy ko waral te allahu mu xaq ba li ukk nee ñu Muhammad sallallahu taala wa sallam moom dong moom jëmmam moo tax suñu borom bind lépp lu mu bind xanaa kon ci tax suñu borom bind jaam ñëpp dara jaam ëppante naag noonam yi nga xam ne mosuñoo jëf dara lu ko soob lu ko neex mosuñoo sàkku yërmandeem mosuñu ko nangoo ak nguuram mosuñu koo jaamu xanaa man di mu nekk ci diggante boobu fii la gënal leen te war a fa la a yem te bi sallallahu alayhi wa nee na kenn nit ci sama xeet wi dana ram mu yomal xiyaam lu toll ne rabiata gépp ak mu mular gépp maanaam lu toll ne wolof yëpp ak tukulóor yëpp kenn nit leen ram mu yomal xiyaam nee ñu law kustu sirul wali la ubida waxoon naa sànq ne waxuma xutbul xawsu wali si boppam rek laa ne ku ne di wali la mooy saxal nga ne xaritu yàlla la saxal nga ne aji texe yomal xiyam saxal nga ne borom mujj bu rafet la kon wilaya ci boppam ku ko yàlla jox jox na la lu rëy waaye nag awliyaaw yépp ay martaba la ñu amee martaba yoo xam ne dafa wuute ni nit ñi ëppantee wërsëg ni ñu ëppantee ay fan ni ñu ëppantee daraja ndax ki nga xam ne mooy doon njiit li nga xam ne room bi def yépp ci loxoom lay nekk nga xam ne xeli picc yi mi ngi mu tiim nga xam ne wund du rey janax mukk lu dul ci ndigalam buñ ko waxee ko xamul dafay daal di defe ne dañ ko bëgg a jaawaleeg yàlla te loolu du dara ci yàlla ndax am na ci awliyaaw yi ku ne bu la suñu borom joxoon yaqin ba mu jeex bu la suñu borom mayoon nga ram mu jaam ñëpp ku tu ku ku gëm ak ku gëmul yëpp daanaka buñ ko seetee ci yàlla li mu amee joxu dara kon nag yàlla dafa bari la te yaatu kon bu sëñ Tuubaa ne xasain rabbi futtihat lii wa zahzahat li gayri al aza dunya wa uxra wa barsaxu dana yëm ñëpp nee na manga sini boroomam suñu borom ubbil na ko ko te àddina ak alaxira ak barsax soral na ko lor kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi da ngeen ma jéggal ndax fi ma nekk maa ngi miir te suma dama wérul waxtaan wi gàtt na bëggoon naa wéy ba biir set wala mu jege lool waaye nag ci mu ne daal ba tey loolu ma tawatoon ci colloque bi ba léegi moo ne ci man li ma bëggoon wax yépp na ma ko bëggoon waxee mënewu ma ko ko waxee li ma bëggoon wax yépp it ah, matul ngeen jéggal ma kon rek bu tàll ni ñaan yàlla na suñu borom def dëgg dëgg dëgg taalibe yal na nu suñu borom def nu bokk ca way xettali ku ñay xettali ji ëllëg yal na nu suñu borom boole ci borom daraja yi ëllëg yal na nu fegal mépp ndog yal na nu won aw yoonam yal na nu booleeg ay soppeem yal na nu defal mujj bu rafet yal na neexal suñu àddina ak suñu alaxira te xiir nu ci boppam lépp lu ñu yàqal yal na nu suñu borom féewaleeg moom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 ولا عبد إلا اهل التوبه فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا هل رشد والتوفيق يا الله ودمر كل اعداء ذنوبنا قبل رسولنا يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وما العرش العظيم كتاب القهر يا الله اني سالتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبة قبلت مع نجمة الوفاء مع زوجة صلت الدين الله وكملا كل ما ننهو ونقصد لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي سعد وذي حرم ويسرا كل ذي تأسير يا الله واسلك بنا نهج رشد واقتنا زلدا واتقنا الجنه الجن والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنجنا به من جميع الاهواء ولا تقضي لنا بجميع الحاجات وتهمنا به من جميع السيئات بانك اعلى الدرجات وتبلغنا باقي الغايات من جميع الخيرات فلا تبلغنا اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وعلى وسلم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الاخرب وتنفرج به الكروب وتنال به الرخاء وحسن الخواتم ويستلقى الخمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق نسل الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا على صلى الله jërëjëf Mbaye jërëjëf yal na yàlla yàggal sa taxawaay